dégloo dégloo déglooti sunu kër FM seeni kër laa jaajëfal leen bu baax a baax euh, di leen nuyu euh, beneen yoon waaye itam di ziar euh, di baalu àq ñëpp di baal ñàpp àq yàlla ñu yàlla defal jàmm ñun ñëpp di leen nuyu ci seen deuxième numéro de la semaine ci biir seen émission sunu Car Matin am mbégte contentement saa su nekk rek di ñëw di leen dégtal li nga xam ne rek mooy seen émission l' émission qui va réveiller dans de très bonne humeur waaye itam qui vous souhaite de passer une très excellente journée ci li nga xam ne rek mooy. seen i activité fépp fu waay nekk rek ñi ngi lay euh, nuyu di la jox sa wàccuwaay di la bu baax a baax ci euh, altalaata ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2022 di ziar kilifa diina kilifa aada yi nga xam ne ñi ngi ci réewum Sénégal rawatina fii ci diwaanu euh, Mboose Kumba jigéen ci mel ni Medina Baye euh, Ndemeen ak feneen ak feneen nga xam ne rek ñoom kilifa yooyu ñi ngi ñi teewlu jamono ji di leen ziar bu baax a baax di ziar ñi nga xam ni rek ñi ngi ci lalu hôpital yi di leen ñaanal suñu borom jéem a fëgg seen bopp waaye ñi nga xam ni ñoom la caabi féete ginnaaw di ñaan rek uh, saa borom ñoom itam uh, caabi féete leen kanam ba ñu mën a dellu ci seen njaboot uh, di ziar directeur PDG Ndiawa Diop depuis Californie Los Angeles di dem ba diwaanu New York jaar Wisconsin ba Kansas City ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay l'Italie Serigne Babacar bis baax maa koy ziar bu baax a baax moom itam di ko jox wàccuwaayam

maa ngi laa siyaar. maa ngi laa delloo siyaar. maa yaa ngi am jàmm mooy Daba maa ngi am jàmm. bu baax waaw tey moom il faut nga comprendre ma dégg ah. waaw wax naa la sama bopp avant may commencé nag. Mm. sa bopp sa bopp lan moo ci ne. waaw wax naa la sama bopp daal avant may commencé man koy jëmbat bu yegg si man yaakaar naa da ngay teer. dégg li ma la wax wax naa la sama bopp avant may commencé. waaw dama lay waxal rek dama lay waxal rek. yow gars yi naan ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal. du loolu yow boo wàccee am nga ko la maase. si wala di defal lam ay massage ay massage ay bain d'huile ay bain à la menthe. yooyu yëpp dañ da koy defal. xam ne Kaolack su ma xasee ba dugg fii célibataire bu mag la te genre célibataire yooyu nag moom moo gën a bon célibataire boo xam ne. saa waay boo doonee célibataire benn laf de temps la vendredi ci ngoon nga takk say defar dem boo demee ñu maase la ba sa yaram vendredi nang. man mu mos nga maa gis man ci am weekend man amoo weekend bi man samedi laa fay jógee samedi ci dix-huit wala dix-neuf vingt heures oh, eli boo fi jógee samedi ci guddi ñëwaat samedi ci guddi dem ga dëkk ba ci kat waaw loolu saa waay loolu du weekend weekend kay da ngay dem vendredi samedi dimanche waaw boo demee dimanche boo xëyee yow dañ lay melax di la massage man nag waay allah ji yow tamit yooyu yëpp fekk ma ci allah ji Ah. waaw xam nga ne man célibataire laa fii ci Kaolack ndàngaat mu ngi noonu. léegi lu tere jëli maram indi ko fii. waaw alaaji loolu du yomb. fii dara jafewul fii dara a mooy dëkk yombaat. waaw maman a ngi kër ga mënuma bàyyi maman foofu mënuma bàyyi papa foofu. nañ ñëw ma éveillé mënuma bàyyi ma éveillé sama kër <laughs> kenn newu fa man ah, kese maa fa de. <laughs> borom kër kenn du ko éveillé. ay je suis tout seul chez <laughs> man doo nga sama kër kenn newu fa. Eh, te man chef de village laa man maa dem fenn. waaw nga dëgg de yow yaay dugg tigi bu fii nii. Kër Bokar Kër Bokar Bari yaay seen dugg tigi. voilà mu ngi noonu maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñooy teewlu rajo suñu kër FM. ci suñu www.suñuker.com di wax rek dal nag jàmm ci seen eh, deuxième numéro de la semaine eh, tey jii di mardi 22 vingt 2022 di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek ci teewlu gi di nuyu ñi nga xamante ne ñu ñuy teewlu ci application bi waaye tamit ci site bi waaye itam ci euh, suñu page Facebook en live ñu ngi leen di ziar bu baax ak ñu ñuy dégluwaat ci YouTube bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci yéen euh, di nuyu Soxna Roxia euh, Cheikh Tidiane Dansokho ñëwagul waaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ak képp koo xam ne yaa ngi déglu rajo bi rek ñu ngi lay ziar. di nuyu suñu président directeur général Ndiawar Diop ñu koy siyaar Babacar Bisbah ak équipe bi yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. Babacar Bisbah sa copain. Mm, du sama copain. ah sa copain la di copain wuñu fenn maak moom. ay ah, yéen a far nag. faruñu fenn. vous êtes amis depuis très longtemps. sama drone bi may lijjanti nii bés ma ko amee ah <laughs> baax na. monsieur sol sol laa koy sànni monsieur sol sol. damay ragal balaa nga àgg fa nga jëm misil ba see. déet du see ab sëñ Babacar nga ne da koy misil maa ngi koy travaay maa ngi koy travaay bu baax. ab sëriñ Babacar nga ne da nga koy da koy misil noonu. sëriñ Babacar. moytul mu hmm? dellu si waat ci yow rek. day mu bootuur bi rek du ci lenn. soxna Roqe maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu. waaye yow soj bi de daa nekk si man rek. di leen dee du ñibbi rek. siisu danga koy wékk Elimane <laughs> waa gis nga maa ngi lay ziar di ziar Elimane di ziar auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu si 3w point sunuker fm point com di nuyu kilifa diine yéeg aada yi ah, di nuyu ñi nga xamante ne nag ñu ngi ci lalu hôpital yi waaye ñi nga xam ne ñu ngi ci prison yi yàlla na leen yàlla delluwaat ci seen njaboot ba lañ defoon duñ ko defaat di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah àdduna wërngal këpp waaleykum salaam wa rahmatulah ñu koy ziar bu baax a baax ay itam dañuy dem ba diwaanu Latmingué eh, di eh, ziar ki nga xam ni mooy Ousmane Seck depuis eh, Latmingué mi ngi foofule ca mairie ba Samba baax Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax soxna Mbène maa ngi laa ziar ci monsieur le maire docteur Macoumba Diouf démb rek jot naa ko téléphone di ko suggéré sama rajo bi. ay xam nga moom la yàlla xam doy na <laughs> moom la déglu moom carrément waaye balaa moo selaw mooy wax ja <laughs> docteur Macoumba maa ngi lay ziar bu baax a baax si li nga xam ne mooy diwaanu Latmingué waaye itam ziar képp koo xam ne rek yaa ngi ñu teewlu Elimane ci eh, kanam tuuti rek ñu daal di ñëw ak eh, yéen ci li nga xam ne moom la ëttu yëglekaay yi eh, xëyee tey fii ci biir réew Sénégal ci sunu Kër

sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo la ko waxee rek lees koy daal di doore fi nga xam ne rek mooy ci li ëttu yëglekaay yi xëye tey ci biir sunu kar matan des koy doore ak li nga xam ni mooy libération yéenekaay ak li nga xam ni mooy la razzia de la fosse Yaya Diallo ci li nga xam ne rek moom nag ab escroc la ñu jàpp ko mu daal usurpé ab euh, député ci nga xam rek moo jëm ci wàllum xaalis ak yeneen yu ni mel gannaaw sax ba mu jëlee téléphone ba ko ci euh, wax rek euh, déplacement à évacuation de sa mère condoléances comment l'escroc a roulé dans la farine plusieurs autorités yu bari la daal escroquer moom Yaya Diallo bi eh, ñu jàpp ni sax du eh, turam wax rek ay ministre ak ay eh, PDG de société yi nga xam ne rek dañ leen daal di plumer l'identité d'une députée usurpée ci li nga xam ne rek moo jëm ci wàllum luubal ak euh, yeneen yu ni mel le témoin quotidien moom itam daal di fësal euh, ci li nga xam ne rek mooy les premiers chèques libérés euh, jëm ci immeuble de Lyon foofule ca Anne Mariste bi nga xam ne rek fa la ñu fas yéene tabax lii ci Lyon basketu Sénégal sa li nga xam ne mooy seen immeuble yooyu foofule ca Anne Mariste ñu ñu ci bëri daat nañuy jot seen indemnisation jëm ci wàllu ثم تخل جنين فانا لجري tabax fa li nga xam ne rek mooy immeuble de Lyon waaye itam eh, li nga xam ni mooy inauguration jëm ci wàllum stade bu Sénégal ni ki tey jii bu fukki waxtu ak benn jotee foofule ca diwaanu Diamniadio lu toll ci fukki chef d'état ak benn fas yéene leen faa xaar waaye itam ak la nga xam ne rek ñoo fa yéene am ci boobule cérémonie bokk na ci sax dippee gi ñu dippee kii de maître Abdoulaye Wade li nga xam ne rek mooy boobule stade du Sénégal la ñu wax. ak l'observateur moom itam daal di fësal eh, ñi nga xam ni ñooy sàmm ci li nga xam ni glissement politique bi ñu nemmeeku fi eh, ci biir réewum eh, Sénégal ndax li wax mooy révélation sur le supposé agenda caché du collectif le plan pour les législatives et les risques politiques yi nga xam rek ñoom euh, jàpp nañ ñi nguur gi bëggu cee jël benn risque euh, war a ba tax ñu war a mën a lajji ci yooyu les élections waaye itam ki nga xam ni euh, mooy Mamadou Diop Decroix la grande confession daal dinay fësal li nga xam ni rek mooy ay kaddo ma ci biir li nga xam ni mooy l'observateur ak artistes yi nga xam ni ñoom itam ci wàllu musique ñu ci bari déggatuñ leen ku ci mel ni Merjo Diatta ak Yoro Ndiaye leen note contre l'oubli ci li nga xam xam rek euh, musique euh, sénégalaise waaye tam li nga xam homme qui li nga xamni jëm ci ko ki di Ndongo gay euh, toute l'enquête sur le monstre du bijoutier Bassirou Thiam est poursuivie pour assassinat avec acte de barbarie ak vol euh, jëm ci li nga xam ne rek mooy ndem si yàlla kii di euh, Ndongo Gaye L'As quotidien fësal nataalu euh, njiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade ak ki fi nekk di Macky Sall wa les rencontres de Paris ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum manœuvre souterraine entre Macky et Wade ci li nga ni moo lu ci mel ni wàllum politique ak yeneen yu ni mel le grand jour arrive enfin muy euh, inauguration jëm ci wàllum stade maître Abdoulaye Wade foofule te diwaanu euh, Diamniadio Macky ouvre l'économie sénégalaise à l'Allemagne bi nga xam ne nag seen njiitu réew mi euh, niki démb daat ne teew fii ci diwaanu Sénégal les écoles yéenekaay la ba tey ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum inauguration boobu mi ngi fi Macky réussi à son Paris wad le grand absent ci li nga xam ni absent une délégation composée de sa famille et des responsables du PDS pour le euh, représenter ci li nga xam ni euh, euh, ci inauguration boobule moom membre national du teew délégation bu am solo ci ñi nga PDS ak famille daal dina leen di euh, yabal ngir rek ñu daal dem teewee ji euh, bés boobule ak chef d'état yi nga xam ni invité nañ fa euh, le commissaire de police Seydou Entreté en justice gannaaw ba mu daal di rek torturé ab gone gu am fukki at ak ñaar ci li nga xam ni rek moom lañu gannaaw ba ko jàppee ci li nga xam ni mooy il tellement euh, roué de coups euh, le gosse euh, souffre de douleurs yi nga et de plusieurs constitution ci li confusion Euh, ci euh, dóor yi ko policier boobule doon euh, dóor gannaaw ba mu ko daal di tegee loxo daal nañu koy poursuivre en justice moom Seydou Anne di ab commissaire de police Sud Quotidien daal di fësal li nga xam ni mooy élection yi non périnière ci li nga xam ni moo jëm ci bureau wàllum conseil municipaux yi ak départementaux yi gannaaw ba ñuy installé yenn ci ay maire fii ci diwaanu Sénégal l'anomalie des locales li mu jur Euh, ci installation jëm ci wàllu mairie ba ci sax ñii di euh, conseil yi mi ngi ci biir xët bu njëkk bu euh, suite Quotidien enquête yéenekaay moom itam daal di wax ci les plaies locales yi nga xam ni incompétence copinage ak absentéisme jëm ci yenn ci bu ñuy installé maire yu yees yi ay ci yu ci njëkk duñu teew way la sax duñu sax yabal ñi nga xam ni euh, ñooy seeni euh, ñooñ pour ñu daal leen ci représenté euh, visite Franck Franck Wélier ki nga xam ni mooy président bu Allemagne va marquer son empreinte ci li nga xam ni économie bu Sénégal ñu wax leneen ak bataille de succession à l'AFP qui pour succéder à Moustapha Niass bi nga xam ni Eh, niki ci at bi la fas yéene eh, jébbal ay lengeem kan ci ñoom ñaar ñi rek ñoo fas yéene eh, wuutu kii di Moustapha ci bopp parti bo ASP Le Quotidien yéene kaay moom itam daal di wax ci rapprochement entre Macky ak kii di maître Abdoulaye trois saison d'une entente ci li nga xam ni mooy xiiroo ngaayo bi ñu nekkee woon boobaak léegi def na ay at ñetti raison yi ñetti saison yi nga xam ni rek ñu ngi ko fas yéenee xaar ci diggante eh, ñoom ñaari njiitu réew yi de Walf eh, Quotidien moom itam daal di xëy ak ci li nga xam ne mooy retrouvailles entre Macky ak Wade l'isolement de Yewwi Askan Wi en téléchargement Karim le grand gagnant ci li nga xam ni mooy boobule eh, rapprochement ñi di waa Yewwi Askan Wi rek bu ñu moytuwul daañu fori néew Euh, ci li nga xamni rek moo jëm ci bobu la wax rek 13 mois sans salaire les travailleurs d'Excaf Telecom menace de bloquer euh, de le groupe de Ben baas ñett wër lañ toog ñu seen payor ñom ñi di liggé ci bërëb bu euh, boobule fas yéene def li nga xamni rek moy bloquer le groupe yenn ci ay émission émission du comme di def waaye itam kan 2022 Mali Sénégal à 17h les Lions euh, proches du septième euh, ci li nga xam ni rek euh, moo nekk U17 yi ci diggante Sénégal ak Mali Vox Populi moom itam daal di xëy ci la Sénégal offre sa teranga à la planète du foot ak stade bu mucc ay bi nga xam ni rek daal dina koy teg ñu fas yéene ko ubbi ñi ki Euh, tey jii foofule ca diwaanu Diamniadio ba tey ci wàllum politique Alioune Sall pare euh, pour li nga xam ne rek mooy la guerre contre Ahmed Aïdara ak Yewwi Askan Wi moom ay kàddu Alioune Sall mi ngi ci biir euh, bu njëkk. Vox Populi. À partir d'aujourd'hui, ils auront en face un autre Alioune Sall euh, loolu mu la xamle ni euh, dorénavant ñom nak dinañ jakarlo ak benen xar karam euh, bu Alioune Sall le mandat moom daal di fësal ci xëtam bu njëkk nataalu njiitu réew mi ak um, li nga xam muy président Macky Sall waaye itam ak stade ak yenn ci ay réalisation yi nga xam ni jot na ko def bokk na ci train express régional ak lii di BRT bi bus transit bi nga xam ni uh, liggéey yi uh, ñi ngi ci te léegi mu dal di sotti magi Macky Sall course son bilan uh, course son bilan plutôt jëm ci wàllum infrastructure ak yeneen yu ni mel le soleil yéen kaay daal di euh, fësal ba tey njiitu réew mi ak kii di euh, njiitu réew bu Allemagne ci euh, visite bi nga xam ne rek ñëw na ko Euh, concernés les secteurs concernés euh, ci li nga ni les visites bokk na ci énergie transport environnement industrie culture commerce et euh, défense ambition de faire évoluer le volume des relations commerciales de 400 milliards et 1 milliard de dollars ci li nga ni jëm ci coopération allemand Sénégal ci walum yenen ni nga secteur yi ñu de légui ci énergie transport ak yeneen yu ni mel source a moom itam daal di euh, fësal ci li xam ni mooy xëtam bu njëkk plainte bi ñuy rek euh, dressé contre kii di Seydou Anne di ab commissaire de police gannaaw ba mu ak goneek fukki at ak ñaar nag eh, daal di koy torturé eh, ba jamono ji nag dafa daal di eh, sonn moom xale boobule waaye itam le préfet de Dakar nga xam ni mooy déguerpi des mécaniciens de Yarakh au profit d'un promoteur privé une autre autorité déchire son arrêt ci li nga xam ni moo jëm ca déguerpissement foofule diwaanu Yarakh daal di koy jox ab promoteur privé mu daal di fay jëmmal dolli li nga xam ni rek moom la fa euh, bëgg a def waaye tam njàng mekk njàngale mi mi ngi ci biir source a euh, les gouvernements scolaires de Dakar dans la rue euh, wàcc nañ ci mbedd yi ngir rek ñaawlu ba tey li nga xam ni moom la lii di nguur gi autorité étatique def nga xam ni rek à dépanner le système éducatif en cale chaise ñu wax ak bés bi le jour les élèves mettent la pression professeur ngir rek ñu dem delu ci classe ya nous itam une gëna a ci li la charte de transition adopté la CDAO e à Bamako ce jeudi ma invite l'Allemagne à rester ci li nga xamni rek nous bile réew ak ngir rek mën a dox tànk jàmm foofule Mali inauguration du stade Abdoulaye jour de baptême des chefs d'État, des sportifs, des artistes présents à match de gala Diouf Fadiga contre Eto Drogba ci li nga à euh, ouverture d'un fa match de gala dox ci anciens internationaux yi waaye itam ci li nga xam ni mooy info l'info quotidien moom itam euh, Macky Sall la euh, fësal ab un bon jongleur ndax ab bal lañ ko daal di rek tegal ñu jàpp ni moom nag ab jonglekat bu mag la moom njiitu réew mi ndax li mu wax rek chef d'état euh, li nga xam rek li nga xam ni euh, euh, tout euh, ce beau monde qui attendait un parrain dans le milieu sportif même si le président Wad mérite amplement euh, le choix porté sur lui euh, li ñu xam ne nag ni euh, mom dafa di ñu même bu fekkee ni sax mom wad réew mi ba woon di Abdoulaye Wade li nga xam rek moy tour bu ko tuddé ci stade bi li quotidien de bien mal acquis sept ans après un bilan mitigé pour le de la justice 2 milliards de francs CFA euh, recouvrés depuis 2012 selon Aminata Touré polémique euh, sur les sommes recouvrées euh, les avocats de l'État courent derrière lui leur dû y bien saisi à ce jour seuls deux appartements ont été vendus Maïssa Babou économiste une traque plutôt politique qui euh, finance que financière euh, ci wàllum traque des biens mal acquis liñ ci japp lepp ñu bari ñi ngi laaj euh, seeni koppar rawatina ñi nga xam ne rek ñooy avocat yi nekk ci nguur gi critique yenekaay fësal nataalu kii di Karim Meïssa Wade ak euh, njiitu réew mi Macky et Karim se euh, parlent ñu wax rek le dégel en marche gannaaw bi nga xamee ni rek amoon nañ ay euh, indifférence jëm ci li nga xam ni rek mooy wàllum politique ak yeneen yu ni mel bu ñu moytuwul rek daañu wéer ngànnaay ñoom ñaar ñi le rek ba mën a toog wax tàcc ci li nga xam ni moo jëm ci seen avenir politique crise scolaire les élèves marche ce jeudi euh, la ñu fas yéene ñoom itam wàcc ci tali bi wax rek seeni euh, professeur ñu dem jàngale ji ndax ñoom itam sauver avenir les contours d'un rapprochement secret et suite logique ci li nga xam le jëm ci protocole de euh, Conakry pourquoi Maître wad avait refusé euh, que l'aéroport de Diass porte son nom le fils du dialogue n'a jamais été euh, rompu le fil plutôt du dialogue n'a jamais été rompu le regard alerte d'observateur euh, ci li nga ni source euh, tribune yéen euh, lan mo taxone mom Maître mu ne biir aéroport duñu ko def ci turam loolu mi ngi ci la tribune direct news bataille hommage d'un fils à son père ci li nga ni inauguration jëm ci walum stade le ñi nga xamni ni jàpp nañ ni doom la ci euh, maître Wade rek daf ko daal di defal ab hommage bu mu mérité Macky Ba euh, tous les euh, tous es prédécesseurs moo xam la Abdoulaye Wade Abdou Diouf ba ci Léopold Sédar Senghor moom Macky Sall jàpp nañu rek daf leen daal di daan ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum infrastructure ak yi nga xam ni jot na ko taxawal ci euh, diwaan bi lëfxe ba tey euh, l'énigme Karim ki nga xam ni mooy euh, Macky li nga xam ni de Masalikul Jinaan à Diamniadio lépp lekk mi ngi ci biir yéenekaay bi journal lëfxe l'évidence yéenekaay Madi le le fossé, ci de bu transhumance ou l'alliance Madi Kenya, Pape Diop si proche de Macky Sall bu ñu moytu rek ñoom itam def comme Bamba Fall wutali ki nga xamni moy mooy njiitu mi Macky Sall Expo Dubai 2020 mi ngi ci biir di docteur Malik Diop participation du DG de l'ASEPEX et celle de l'ADPME l'UE euh, Sénégal euh, son euh, li nga xamni rek moy summit mom muy def liggéey bu mujj ayib docteur Malick Diop foofu la au Expo Dubai Macky honore le PDS qu'il avait savamment savamment plutôt déconstruit euh, gannaaw ba mu ko daal di tasee tasar moom Macky daal dina leen di euh, joxaat honneur bu yees jëm ci li nga euh, maître Abdoulaye Wade di boobu violence sur un enfant de 4 ans un Sénégalais arrêté aux États-Unis ab gonekk ñeenti at la daal rek def ay ñaawteef ba tax rek ñu États-Unis lutte contre le terrorisme Dakar et Ankara mutualisent leur force eh, daal nañuy lënkale rek ngir xeex lépp lu jëm eh, ci wàllum eh, lii di terrorisme stade yéenekaay moom itam lim ñu fësal mooy plus de stars au baptême di joyau des lions Euh, foofulee ca diwaanu jam euh, ñaajo record yéen kaay ci la xëy ba tey ak euh, février féerique ak champion d'Afrique bi nga xam ni rek nemmeeku nañ ko ci diwaanu Sénégal gaynde Sénégal def ko foofule ca diwaanu Yaoundé waaye lii di weeru février nekk na weer bu kenn dootul fàtte fii ci diwaanu Sénégal Sport Plus euh, Fosselt, gonek Bambaligi Momitam, euh, nos euh, célébrations célébration de Mané par Liverpool toute la vérité Mom, Sadio Mané date na ci dikkaat Edouard Mendy Chelsea Lille fas yéene ne s'attend pas à un match facile Digente, Nyari, équipe Yoile, le sunu lamb ak Sa Thiès Reug Reug fortement euh, plébiscité ñu bari di ko xaar ci diggante euh, kii di euh, rakki Balla Gaye di Sa ak Reug Reug le combat qui s'impose ci diggante ñaari lamb ñaari mbër yooyu le waaye itam kii di soq franc ficelé pour juin 2022 ci weeru juin la ñu fas yéene Modou Lo Ama Baldé ñoom itam ñi ngi ci biir xët bu njëkk bu sunu làmb ilimite face to face euh, sa midi prochain à Walf TV euh, ci li nga xam ni mooy diggante euh, kii di Ama Balde ak euh, Modou Lo pourquoi je n'ai pas demandé de report guy gi daal na koy leeral ci biir euh, sunu làmb euh, mu ngi noonu Eliman fii la ñu daal di yemale li nga xam ni moom la ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci biir sunu kër matin ci kanam tuuti ñu daal di dikk ak yéen ci li nga xam ni mooy commentaire yi. moo di FM seeni kër laa mën a dégloo dégloo dégloo FM seeni kër ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew noonu simili moo di boto ci juróom ñetti waxtu El Ibrahim Euh, soxna Roqe gis ngeen li ëttu yëglekaay yi xëy tey li si ëpp euh, ñi ngi wax ci li nga xam ni mooy inauguration jëm ci wàllum stade Diamniadio euh, ñu dippeeko ko maître Abdoulaye Wade tey jii nag lay am. à partir de 11h je bu fukki waxtu ak ben euh, joté euh, la li nga cérémonie ci euh, les attentes sax ñi ngi xaar lu ci fukki chef d'état ak ben tam ay star de football yu ko ci Afrique ñu bari de ñoo ba fas yéene fa amal sax ab match de gala diggante anciens internationaux yi moo xam ci Afrique la euh, Côte d'Ivoire Cameroun ñoom ñëpp daal maanaam ancienne génération gi daal ñoo fas yéene def seen marché de gala def seen de retrouvaille waaw tey daal bésu feet la foofu ca diwaanu Diamniadio waaw. Ah, euh, ah waaw. Euh, ah, février bi kay moom février Sénégal yàlla def bu baax yàlla yokk ah, yàlla yokk di bi di wax mhm. euh, te mag yi mu ngi veillé ci infrastructure lenn rek ah, waaw waaw waaw moom kay mooy mooy mooy loolu doo ngay cat bi de ah, loolu kese cat bi waaye waaw mi ngi ci góorlu nag waaw mi ngi ci góorgóorlu quoi comme puisse dire ay pays pauvre lañ te toujours moom mu ngi doon moom bi mu ñëwee slogan mooy le Sénégal émergent waaw ah, mu ngi si bay waaram nag parce que boo demee si wàllu santé mu ngi tabax ay hôpitaux yoo xamante ne nii méngoo ak jamono nga dem ci wàllum transport même chose ah, éducation tamit ah, nañu ko wax mais mu ci góor góorgóorlu ci wàllum infrastructure nga xam ne tamit ne dëkk loolu moom moo koy jëmale kanam loolu mooy tax nit ñi ñeme la ndax nday mar yaa ngi gis Euh, président bu Allemagne. Mhm, yaa ngi euh, mhm. bu Turquie. bu Turquie ñoom ñëpp ñu ngi fi. yenn euh, accords yi. partenariat pour liggéey ak ñun lépp parce que gis naa sànq si yéen kaay ñu ngi bëgg a liggéey ak ñun ci wàllum infrastructure. transport tout. transport ci wàllum commerce. Mhm. parce que boo xoolee àdduna bi commerce parce que la mondialisation. waaw duñ defaree tey États-Unis boo xëyee gis ko. bul sonn boo ko defaroon cinq que trois heures du matin boo xëyee ñu reproduire ko. ñu reproduire ko daal da koy indi yow tamit nga di si jëriñoo nga xam ne lu ama am solo la fi mu toll suñu président mu ngi leen rek lañu bëgg daal mooy. maanaam fële gi yàq bi bu génnee waat. Ah, fële gi mu taxaw ak moom wàllum dund gi daal. Ah, waaw waaw foofu nee ni sonn nañ foofu daal la ñuy am lu ñu koy suggéré ndax xam nañ ne daal mu ngi liggéey. mu jël bool booy li bool booy yi commerce bi. na jël ministre bool bool teg ko ci commerce bi ay waay jël jël pël yi jox leen sàmm jël séeréer si jox leen ak <laughs> ñoo fa xam ah ci lañ moom su ma seen liggéey di amuñ leen defuñ leneen lu dul bay lu dul ba commerce. man moom su ma président joxoon conseil ministre conseil dama naan ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëlal càmm gi nga jox ko parce que xam na sàmm nga jël napp gi jox ko euh, lébu yi waaw ñam maam raar xam nañ xam nañ napp nga jox leen ko waaw nga jël euh, euh, commerce bi jox ko bool bool yi ah. njaay rek la ñuy def jënd ak jaay dugalante génnalante moom ñoo aay loolu moom ñoo ca raw jël santé bi jox ko yi ah. bañ koo jox falaa falaa yi ñu mel ni mari daaw nga xam ni xamuñ dara nga jox leen ko ñu tabax hôpital rek di teg. Ah. di recruter personnel bu efficace. teg leen seen am xam nga boo di tabax structure tamit. ay mm-hmm. infrastructure de au niveau. te tegoo fa ña nga fa war a teg itam moog zéro yam. boo fa tegu des personnes qualifiées. qualifiées ñi am qualification ba nga fa def. du bilaay boo ko deful yàq nga sa sa xaalis si si si si zéro. parce que ñëpp ak mën a yem xam nga teer bi teer bi bi mu commencé daw. gars yi de léegi nga gis ñu caxat caxatee ko waaye gis gis nga la ñu waxoon parce que jékki-jékki nañ gis benn waaye dugg ci teer bi yor ñamu mbaam. parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo war a surveiller foofu. ndax seen liggéey defoon nañ ko normalement ndax man vidéo yu bari daw damay gis ñu dugg ci teer bi kii jël tànkam. waaw ci beneen chaise ba ñun tamit ñun tamit fan la gën a civil bu bon bu rek. ñu daaj di séese daaj di nañ séese jël nañ ko nangam ñun ngir yàlla na ñu civiliser tuuti. te bëgg dara tamit maanaam nit boo bëggu dara doo dem. Ah, nañ bëgg dara ñu ngi ñuy defaral. am ndaa toj ndaa taxut a bëri ndaa billaay taxut a bëri ndaa. nañuy defar buñ ah, amee beneen ndaa nañuy raxas ba set boobu duy duy. ah ñu soog a bu neexee bu jël saako pompiteer wërale ko ci ndaa yi di sotti ndox muy ah. sedd sax duur. ah tamit nag li ñu war a mën a wax daa bëriwul mais Elie tamit gis nga ci euh, euh, inauguration bi. Euh, stade Diamniadio bi ñu war a inaugurer muy stade bu mucc ayib mën naa ni sax ci Afrique soowu jant. Euh, ñoo ko fi gën a ñoo fi dàqale stade te ñoo fi ñoo ko fi ëppale ci place yeneen mm-hmm. yeneen yeneen stades yi ñi ay 45 places 45000 places la ay 40000 mais fii ci Afrique de l'Ouest wala ci Afrique sax laa wax Sénégal moo fi am infrastructure boo xam ne cinquante mille place lay jël euh, d'une valeur de cent dix huit cent soixante dix milliards mais dafa am ñoo xam ne li ma wax démb rek. Mm-hmm. dañuy critiquer. Mhm. pour pouvoir critiquer. am na ñoo xam ne nee nañ milliards yi ñu def ci stade bi waru ci woon a nekk tu vois euh, même inauguration bi yàq gi ñu ci nar a yàq nii sax mënoon naa ñàkk xam nga tamit Sénégal kenn mënta war gàmmam tamit yenn nii eli gis nga Marie Dao Sénégal xam nga lan nga fi déggagul mooy que eli ëmb na. <laughs> loolu rek nga fi loolu de moom la ñuy mujjee dégg tamit. mais nag képp kuy def rek. Mm, nga bañ ñu critiquer la doo def dara. ah loolu de am na. gis nga sa critique yooyu. moom mm-hmm. moo lay avancé loo. waaw Sénégal lu lu baaxul duñ ci bàyyi xel. lu baaxul kenn du ko bàyyi xel. déedéet mais lu baax moom. ñëpp ko rek di mbéj mbéji. balaa nga ciy xam dara instant yaa ngi sol benn benn t-shirt bu rafet fës naa ci. Ah, waaw te ñëpp xam nañu instant yi fës nga ci. fës naa ci waaw damaa fës suñu rajo. waaw foo romb. ñii nga xamante ne xol yu normal la ñu yor. Mm. dañuy apprécier dañuy mais ñi nga xamante moom yaa ma gën a xam. yoo mel ni man boo rombee dañu wax. xamuñu appréciation. tiset bi da rafet na waaye la ko yàq ba baatu mbubb bi daa xaw a weng. <laughs> num so moom moom moom moo yàq. tiset wala ki ko sol daa rafetul rafetul. génnewul génnewul fës bi quoi moom fësu ci. <laughs> lu nekk ñu critiqué Sénégal. même non bi nga xamante ne sax moom la ñu jox waaw nee nañ euh, lu tax Abdoul mhm. mais mais stade stade bi yàqu amitié bi nu mu tudd Léopold Sédar Senghor jeex na kan lañ ko tuddee ah, suñu président bu njëkk ah, du président lañ ko tuddee ah, waaw léegi ñu ne eh, stade bi waruñ koo tuddee président dëkk yëpp nag seen i stade yi seen seen i tur lañ koy tuddee xam nga ñun Sénégal ñun dañoo tàmm lu bon quoi mooy bàyyi ba Elimane jóge fii ñu ne dañ koy delloo njukkal di ko tuddee ay mhm. stade loolu lan la koy njëriñ Rose na ko moom taxawoon na fi ne fi man man su ma su ma su ma deewee ku ma tuddee dara wala nga kii kiyal ma dara man baalu ma la ko. waaw Mansour Mbaye tamit ñi la ko ku ma njukkalul. ku ma njukkalul sama dund su ma dee bu ma kenn hommage. mu ngi noonu. nañu wax na dëgg nag. bilaay. mais Ablaye booy dund lañ lay njukkal nga fekkee ko mu neex. attendez maître Ablaye Wade jot na pour ñu njukkal ko ci dundam parce que maître Ablaye Wade xoolal li mu fi liggéey moom it. waaw. nañu wax dee même bu dee fekk parce que lu bëri Macky ñëw na di ko fi inauguré ko fekk da fekk mu commencé lu bëri ay réalisation yu bëri tey bu demee ba Sénégal tey nga dem aéroport Diass firndeel la ko Dakar nga def de temps Kaolack Dakar deux heures de temps wala une heure et demie billaay wallaay yàllaak moom parce que autorité APS moom moo ko fi indi prolongé ay BD bi nga xamante ne macha allah jege la lool laf cat bakkan macha allah tey aéroport international la xoolal boo marisé tey boo fa duggee wala eh, Pikine sax amatul embouteillage ak ay. mu ngi noonu wuti wuti oto. li ko waral moom mooy euh, péage yi nga xamante ne bii créé na ko ak ay corniche ak yu ma xamul yo xoolal rek loolu rek. ay réalisation plan Dakar rek boo ah ko tiimee rek da ngay kontaan kontaan. plan bi xam nga yéeg nga xamante ne Dakar ah. bu njëkk ba fekk na ma fa. <laughs> billaahi wallaahi wa taalaahi ñun bu ñu demaan boo ñëwaan ba ba Rufisque. Ah. benn yoon la woon di. waaw trois heures de temps da def biir Rufisque yaa ngi taxaw oto du bouger amul def dara. dañuy da ngay gis sax ñu defal la monument bi ne la boo egsiwut ci monument bi duggoo Dakar. léegi moom loolu mu étudier ko xeex ko dimbali nit ñi. ba léegi seen désencombré lu bari. dem beeg dikk bi gën a ñoŋ. Mhm. kooku di dund dara wokk ko ñu defar stade bu mucc ayib. mu nekk doomu réew mi liggéeyal réew mi. yeneen a ngi ñëw. ñu jël noo nekk ko kii moom lañ ko bugg a duppee ñu ne noonu waru ko duppee. parce que médias yi ñu def daa bari foog yi Mumbaay gi dugg na fii génn fii ab président waruñu koo tuddee estat eh, te ab président ñu mu ngi porté suñu non estat hmm. ak non eh, aéroport. waaye waaye demal France da nga faa gis sax turu sénégalais. déedéet xam nga man damaa kontaan damaa kontaan ci ci ci Ousmane Sonko. Ah. bañ ko installé la dem mbox préfet ne ko. dama bëgg a changer noowu yi fi nekk changer ko yëpp tuddee ko ay Casamance ay sénégalais waaw ñoo xam ne dañoo liggéeyal réew riz kii union africaine la ko tuddee mu tuddee leen ay ay maxa ñoo xam ne ci Casamance lañ dëkkoon gis nga loolu lañ war a bàyyi nañ bàyyi su fekkoon nag ab ab ab benn kii bu nekk euh, Euh, France wala beneen dëkk lañ ko tuddee woon doo dégg kenn di wax. xoolal allée centenaire. xam nga allée centenaire lañ ko léegi léegi nañ ko ah. tuddee nañ ko rue Seng Seng Faye. alhamdulilah laal alamin bi ñu changé noo pont pont bii nii noiro bi. Mhm. xam nga changé nañ ko. pont Serigne Bassirou Mbacké lañ ko tuddee moom lañ ko tuddee. loolu nag liñ ko waroon bi ñu ko waroon def dafa yàgg parce que ñun fii ñàkkuñ ñu ñu ñu tuddee. ak ñoo bari. yow kaw la gi rek kaw la gi ñu nekk nii di addu gaay auditeurs eh, yi di déglu déglu rek juga kewe ngi fi maa ngi romb benn tableau bu ndeysaan tableau bu ma marqué mais tableau bi dama xool di xool di xool xool ba sës mhm. man ndekay jàmbar yëpp kaw la lañ dëkk waaw mooy tableau bi nekk fii booy dem côté parcelle la nekk. côté parcelle dinaa ko mais mi ngi fii les grandes figures du Saloum. waaw ñu ngi ci ancien gouvernance ñu taf leen. foofu laa ko romb de. am na fu ma ko romb kay maa ngi ci ancien gouvernance ñu taf leen balaa ngaa jàdd ci bâtiment bi noonu. ñu ngi foofu ay ponkar rek ñoo fa ne. ay patrimoine lañ. Hmm? pourquoi pas ñooñu rii Kaolack yëpp. ah ay kaniwo déggoo la su ko defee ñu leen di fàttaliku ñu ah? leen mën leen a. waa ñu dégg ri ri maam Khalifa Niass. Hmm. mën naa ne man rii dalwaa sax dalwaa xaw ma ne woon noo la keroog ma ko bindee dama ko ma dalwaa noo eh. noo la personne la Fallou na yàlla maa ngi koy saluer mu nga foofu si Kaolack info ma rii dalwaa dalwaa turu nit la man ko musuma koo xam man ko xoolal lii nii te ñun xamuñu ko te ñun suñu mag ñi ñu ngi fi mm. ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ duñ leen tuddee ay rue tuddee lañ dara ñu xam leen xam ñii lan lañ fi lan lañ liggéey Sénégal mais ñun ñooñu noonu lan lañ ñu def balaa koo xam xam nga Sénégal sax am na ay turu français yu tuddee ay rue balaa nga koo xam nga dem ay Maroc ay Algérie ay Égypte mm-hmm. doo fa dégg ay ay ay abi Bourguiba ngay dégg mm-hmm. ay euh, rue Mohamed six Mohamed cinq mm-hmm. Mohamed deux ñoom kese. amul benn français benn autorité bu jógee extérieur ñu tuddee ko seen réew amul war dañ koo changé léegi. tuddee ko riz sëriñ ak sax ñun xam nañ ko. ndax xam nañ ko wax ne sax tuddee nañ ko ko mais am na ñoo xamante ne. monsieur le maire Serigne Mbuub bu dee ah. yaa ngi dégg ay ca na ca dara defal ni Ousmane Sonko. Euh, Mari Daawo gis nga Baye Niass mën nañu wax ne sax tuddee nañ ko fii moom moom dëlloo nañu ko jukka mhm. parce que tey euh, hôpital bu mag. waaw El Hadj Ibrahima Niass moom lañ ko dippee. moom lañ ko dippee non am la porte université Sine Saloum ah, El Hadj Ibrahima Niass ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko tuddee El Hadj Abdoulaye Niass mooy waajuru Baye Niass tuddee nañ ko mais mm, am na ñeneen ñoo xam ne xamoo leen mm-hmm. ñoo xam ne ay historien lañ ñoo xamante ne yow xamoo leen te def nañ fi jaloore ay Maba Jaxu mm-hmm. ah? ah pourquoi pas ñooñu ko tuddee ay édifice ay Maba Jaxu na fee am ama loolu boo ko defee xale bi nga xamante ne romb na bi wala bërëb bi wala école bi wala dara bi ñu tuddee ko ab tur boo xam ne imaginer sax imaginer gone googu bokk ci ci ci dynastie boobu ñu tuddee euh, rue bi. waaw maanaam moom day yëg deretam. voilà da koy xeeñ. da koy xeeñ day ndax moom it góor góorlu ne man dinaa mm-hmm. def comme man sama maam bi. wala sama papa bi lañ tuddee ma dara. ay mbuutu saw ñu ngi fi bu boobaa nag Mari Dabo mi xamutoon euh, diw mii ñu tuddee lii Elimane mi nga xamante moom nañ tuddee hôpital bi wala dara. waaw dana dem gëstu ji xam kooku lan la fi liggéey. yow loolu di lay encouragé sax yow sa jëmu bopp nga ne man dinaa fexe liggéey fi loo xamante ni man it Sénégal benn jour dina ma delloo njukkal. parce que Ablaye Wade mii mosul xaar moom ñu tuddee ko dara. mosu koo xaar. mosu koo xaar mais li liggéeyal na réewam. li li li li li ngeen faral di wax maanaam bul euh, li bul xaar. sa réew di la delloo. bul laaj li ma sama réew di defar. voilà laajal loo war a defar sa réew. jeex na tàkk. xam nga ne Ablaye Wade bi muy def loolu xaarutoon réewam dëkk delloo ko njukkal. Mm, mm, mm. réewam moom moo moo liggéey li nga xamante ne moo tax réewam dëlloo ko njukkal tey. jël stade bi nga xamante ne multifonctionnel la stade bi nga xam ne dimension international la xoolal dama seetaan billaay vidéo sa xol day booy seetaan bi sa xol bi day féex maanaam fan laa ne ko gis nii rek man buñ buñ ma woon biir gi man dañ ma woon biir gi demal si biir gi man biti gi rek hmm. dèjà dafa doy biir gi pale na ko dugal si biir palais sax am na ko ci biir. dugal ci biir. bureau présidentiel loge présidentielle. bureau PDG bu dee yaa ngi dégg marché Sénégal Égypte dañuy dem ñun ñëpp dégg nga. loolu. ñëppay seetaani man ni mosut dugg stade sax ma dugg. stade la première fois suñu ko suñu suñu premier directeur. dañuy délocaliser dañuy délocaliser rajo bi yóbbu ko foofu noonu. seetaani émission yëpp fa lañ koy defee waaw. parce que stade bi vraiment euh, man dama ci kontaan bu baax. non non c'est di wax nag sénégalais yi. nañ bàyyi critiques yi nañ mhm. bàyyi lu ñëw rek ñu ñu siy jéem a ut ay buzz xam nga xam nga gars lu tax ñu def la mari daaw <laughs> bëgg ku tudd ku rek parce que ñu ne diw diw critiqué na nangam rek hmm. pour gars yi gars yi bàyyi bàyyi ci moom xel loolu rek lañ ciy def parce que gis nañ fi sénégalais yi bu ñu demee indil ñu ndam boo xam ne hmm. trophée bi nga xam ne yàgg nañ koo topp hmm. suñu maam yi supporté bay bëgg a dee ah suñu yaay yi suñu papa yi ñëw supporté bay bëgg a dee ñun suñu génération bi yàlla def ñu tombee ah ñu indil ñu ah, coupe bi njëkk mm-hmm. ay xale yu ndaw dem indi ko ñu woo leen pale di leen delloo njukkal ku ci nekk ñu jox la koppar ak ñaari kër am koo xamante ne taxaw na fi naan li ñu leen jox patati patata nangam nangam nangam mm-hmm. nangam moom lan la fi defar réew mi ah ak lan lan lan lan lan ak kan moo ko may audience milliards yooyu bu ñu la ko joxoon nga tëdd ci di nelaw kii dafa yem nit ñi xam man sax lu ma jaaxal ñu ngi critiqué naan milliards yi ñu def ci stade bi waaye ñun ñaata milliards la ñu football bi indil jaaykatu mayo yi da waxuñ jaaykatu dàll yi jaaykatu bal yi kenn waxul ñun économie sport football duñu mës a kaas ci senegal ñoom hmm. loolu duñ ko xalaat ba pare ñun buñ amee stade bi mun nañoo organiser lu ne gis nga stade boobu. mun nañoo indi lu nekk milliards yi ñu ci def lu ko ëpp mun nañ ko caa amaat dañ ko ciy gañaat amaat gis nga jour ouverture bi tey tey mm-hmm. ñi ciy gagné tey ay xaalis da ay millions yi millions la autour da ngay gis ñu lal ay millions yi millions ndox yi rek ah. ñoom waxuñ dara astama ñi nga xam ne ñooy day dugal dara ci économie réew mi di day dugal dara de économiquement parlant Marie Rab loolu nga xamul lan la ñuy critiquer man mi nga xamante ne ma yàgg seetaani match stade xam mm-hmm. bu fekkee match bu euh, multi match bu international mm-hmm. dangay ngay teel a dem xam ne doo añ foofu la ñuy dem ndox da ngay jënd. da ngay jënd da ngay añ. lépp kay. lu nekk da nga ko sax da ngay jënd ngay jënd lépp voilà. imagine léegi yow kooku ngay jënd ci moom. ticket ba ak ticket ba ak ticket ba. Ah. léegi imagine kooku ngay jënd ci moom lan la euh, euh, nga yaakaar ne euh, xaalis boobu dara du dara. dafay imaginaire le vingt le vingt cinq. Hmm. le Sénégal le vingt trois le Sénégal di def premier rencontre ak Égypte. ak Égypte imaginaire dalay dalay leer ni yow premier mars. Mhm. ticket yi jeex na. ñun ñi jënd nañ ko ndax kenn ku ci nekk sama genre gi déggoo ma man mi bu sa dugg stade man bëgg naa hmm. dem seetaani loo ko jaayee ñu jënd ko cent mille francs billet dañ koy jënd surtout Sénégal nu mu bëggee lu bees <laughs> ah, très yaa ko laal am na ñoo xam ne match ba yóbbu fa nañ dugg ci stade bi rek di si naf jaar ci coulisses yi <laughs> dugg ci vestiaire yi hmm. taxaw moom daal fu ñu stade bu ñu romb daal di fay dafay de waaye itam bokk na li ma gën a neex Elimane hmm. muy musée Pape Bouba Diop voilà bëggoon a ñëw bokk na li ma gën a neex. xam nga ne euh, gars yi ñu ngi wax moo tax ñoom. xamuñu xamuñu. gis nga nit ku xamul da ngay noppi. da ngay mel ni élément nga dina ne pat. noppi lem sa génn toog ci. man gis nga Marie Daaw man lépp loo xamante ne sama xam-xam. soriwu ci du ma ci àgg parce que defet nga ciy am. parce que yow da wax yaakaar ne yaa ci ne. te fekk boroom xam-xam mu ngi lay déglu fee benn point bu ndaw rek la lay tontu nga nërmeelu yàqul yàq la naan sabone da am nga ne saa guy guy nan guy mari sagna guy mari sagna guy guy la wala guy guy mari sagna guy mari waaw ah, guy mari guy mari sagna bi muy critiquer yaakaaroon na ne saa waay bu waxee loolu rek dina am ñoo xamante ne nag mais dafa wax loolu yàqal boppam mu ànduma ci moom parce que sénégalais yëpp ñu ñoo retourné di tontu état bi sax mujjul tontu ñi nga xamante ñoo ko def ñoom président Macky Sall. Sénégalais bëggul injustice. Mhm. xam yaakaaroon nañ ne bu ko defee rek wax ni wax mm, yooyu waaye ñun duñu sos te na gis nga musée ah, bii euh, xam nga nit wax ne stade bi war nañ ko man tuddee ay Pape Bouba Diop ak yu ma xamul mm-hmm. rafet na lool ñu tuddee ko Pape Bouba Diop mais delloo nañ ko njukkal ci biir foofu moom ci biir stade lépp luy œuvre am coupe yi mës a gagné championnat yi mës a jaar yëpp ay moyom tout ñu ngi ci biir hmm. da leer ni yow musée boobu même bu dee Pape Bouba am na ñeneen ñoo xam ne dinañ bëgg a ñëw marqué seen empreinte. Mhm. jël jël dara tuddee ko Pape Bouba ñëw bu ko ci musée ba. loolu sax neexu si Ndeye Marie da nga gis ku jugee réew réew ñëw xool si. kese affaire bi tour euh, affaire de tourisme sax lay mujjee. kese da ngay fay pour dugg réew réew pour ñëw xool si musée. Pape Bouba Diop c'est comme monument de la renaissance rek. am na lu Pape Bouba Diop marqué ci sa vie. te dem na te xamoo ko. xaaral xool moom la nga xam ne moom la defoon ñu ngi ko fa teg mu nekk patrimoine boo xam ne naa ko dem xooli. stade bi ndax xam nga ñu mën a apporter lépp. stade bi Mari Dabo si biir xibaar yi sànq lan la wax ñaata président ñoom ñooy ñëw. fukki président ak benn fas yéene ñoo teew waxuma la ak international football yooyu. kon xam nga ne stade bi jaay na turu Sénégal xam nga ne stade bi jaay na turu Sénégal. xam nga ne coupe bi keroog dafa jaay turu Sénégal waaye stade bi dafa gën a. dafa gën a renforcer parce que benn bi ñu jëlee coupe bi non c'est xam nga nit ñi dañoo amul xam-xam quoi yow yow yow yow gis nga Sénégal joueur bu nekk waroon naa am cent millions sax. cent millions waroon na ko am cinquante millions yi dafa bari ba nekk euh, ngay utiliser xaw ma fongalom bi xaw ma noo ko utiliser SA <laughs> bu déggee jël na coupe moom mosul xam Sénégal mhm. wala da ko doon dégg. ñoom dañoo dañ kumpa waaw dañoo dañ kumpa. gis nga fan bi Sénégal jëlee coupe maa ngi seetaan benn documentaire euh, fee nu mu tuddati euh, Saly. Mhm. Mbour. Mhm. gars yi dañu defaraat seen kabaan yeeg. waaw mhm. seen hôtel yeeg. seen auberge xam na senegal dina fees teel. muy Dine Samba Diallo wax na ko de pourtant. Sénégal dëkk arab yeeg ñëpp fii lañ jëm si. dañu ñëw. ñëpp fii lañ jëm si. dañoo am xar baax nag. yàllaa ñu ko jagleel ah, dañoo am xar hmm. baax ñun. dafay xool ci histoire Sénégal il est hmm. pays africain à ne pas Euh, de coup d'état mhm. yàlla bu mu fi mës a am fii ba euh, àdduna di tukki te gëm naa ni du fi mës a am mhm. ndax mag ñi fi nekk te tamit ci patrimoine culturel mhm. ñoo ko gën a riche la ci Afrique parce que ñun dañuy aaye ñu bàyyi ñun patrimoine culturel patrimoine culturel ñoo ko fi gën a baaxle ak religieux ay om maanaam ñi nga xam ne jot nañoo dem xoolal ku mel ni euh, kii Bachir Dia Bachir Diagne mm. le philosophe Bachir Diagne Cheikh Anta mm-hmm. mi ngi fii ñeneen ak des hommes yoo xam ils ont marqué leur empreinte partout dans le monde c'est des sénégalais des africains bañ naan découvrir carbone 14 ak dugg na fii mu <laughs> taaj ñoom ah. ñëpp ñëpp toog il est le premier africain à avoir à décrocher son doctorat en physique chimie recherche tout Amérique mu dem génnee civilisation Afrique fan lañu doore dooree. nan la ñu def ci suñu langue yi nan la ñu def ba duggalante da ngay gis tax ñu ne tëflit bi olof yi di wax fii Sénégal Égypte la jógee ndax tëflit lañu daan wax. loolu yëpp mu bàmmeel bàmmeel ñun bàmmeel la ñuy wax. waaw sëg yi bu dee égyptiens yi bàmmeel. bàmmeel la ñuy wax sëg bi di ko mooy bari. dañ koo transporté. indi ko mooy bi lay Afrique yàlla ko yàlla yokk xéewal waaye ay yàlla. yàlla ñu yàlla dolli sutur. Eh, ndax tubaab bi dañoo dañoo njëkk gis ne ñun am nañ lu fi nekk. waaye potaas ñu jéem a jéem a ñëw nag. daal di koy ñoom bi fa foore yóbbu ko waaye di yomb. Malien yi ñan lañ def am d'accord naa ca. Hmm. <laughs> dégagé rek billaahi damaa kontaan ci Malien yi. Hmm. dégagé rek damaa bég ci ñoom. man damaa fier ci ñoom. parce que am gis nga dëkk dafa am fooy toll da ngay. da ngay hmm. waxuma la fii mais da ngay soxla si indépendance. tu as besoin de nouvelle air pour respirer. waxuma la freedom ba Nelson Mandela doon wax ak Martin Luther King I have a dream. Mhm. mi ngi ñëw rêvam ba. Hmm. déjà réalisé na ko en Amérique sa ay rêve gi ngi ñëw parce que Martin Luther a àdduna mu kenn musu woon xalaat ne ba président noir noir dana jiite Amérique te am la mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. Nelson Mandela ñaata at lañ ko tëj kaso. mu génn nekk président liggéey Afrique du Sud ba tey moo dàq ci Afrique. le plus beau pays de l'Afrique, Afrique mooy mm. Afrique du Sud pour te dire que jamono ji ñu toll à partir de 2022, mille vingt deux on a besoin d'un nouvel air pour respirer. te ñu ngi ji ay tànkama ñun suñu air bi kenn duñu ko xañ kenn du ko ah, polluer moom ñu doon tàpp tàppal ñuy nelaw ñuy tàpp tàppal ñuy nelaw yeewu léeg-léeg nga gis occidentaux yi ñenn ñi tam na nga naan est le continent le plus polluant xam nga lan moo gën a dama lay wax rek mama daane dama lay wax rek ñun sur planète monde bi. Mhm. Afrique 2 kessé les lay polluer. waaw bu 100 2 lañuy polluer. Hmm. imagine wax kon 98 c'est les occidentaux qui polluent l'atmosphère 98 c'est les européens qui polluent l'atmosphère on ñun 2 pour cent la ñuy ay. ay ay ay ay euh, climatique. amuñu ko ay ay ay séminaires yu jeex te gis nga li ci gëna a soof mari moy légui ren <laughs> dañoo jël ay journalistes. Hmm. dem na dañ leen di former pour bu demee séminaire ba. Ah. ñu xam te ñoom journaliste yi jóge fii Afrique bu ñu demee duñ dugg. waaw journaliste occidentaux yi. ñooy dugg ci biir saali te ñu ngi dañ dañ dañ ñuy defal séminaire pour bu demee ñu mun a xam lañ fay def te ñun ñoom bu ñu ñëwee duñ ñu jox benn. si internet bi lañ koy écrasé yi ci biti jëlee parce que duñ xam fii lañ démarré wala fii lañ pare ñoom xam nga lu ñu leen di jox ay chiffres. parce que xam nañ ni bu africain bu journaliste africain yi duggee ci biir du seen. arrangement ñoom du seen arrangement parce que ñoom. ñoo leen gën a maîtriser ñoom la jóge maanaam liy tooy ci ñoom la jóge jóge wut ci ñun. li ma sama benn mentor di wax nee na bis ma yóbbuwoon ci instance de décisionnel internationaux yi ci de ma bokk ci délégation Sénégal barki yàlla naar du tubaab bi dootuñu ko defati. Mm-hmm. ma ne ko yow toogal. Marie Dabo xam nga lan moo ma gën a neex ci stade bi euh, huit cent places yi nga xamante ne ñoom la ñu jagleel. Mm-hmm. Euh, taskatu xibaar yi taskatu xibaar yi waaw. seen place bopp la huit cent places huit cent. foofu moom te dalay leer ni Sénégal euh, organe de presse yi est-ce que huit cent. Mm-hmm, maanaam organe de presse yi ñu reconnaître Ils nous reconnaître par exemple dañuy sommes tamit bu ah, mat. télévision parce que y a fi correspondants. dañuy ñëw France 24 TV5 RFI. par exemple par exemple ci beaucoup Coupe d'Afrique amé, Sénégal presse yëpp dañuy envoyé euh, spécial. Nous avons envoyé spécial nous ñëw 800 places. Dans tam salle de conférence boo xamante 284 euh, sièges. ci salle de conférence ci salle de conférence bi ah, pour am foofu. pour pour conférence de presse rek. ay cuisinier toggkat yi. bien équipé. te xoola sax stade bi euh, Ndeye Marie emploi bi mu créé. mu ngi noonu. emploi bi mu créé waat biir. Mm. am na ñoo xam ne ñu ngi doon taxawaalu élément di toog ci bàyyi di attaaya leen dugal ñuy entretenir man de xam naa ne moom su fekkee dañuy jël tamit nañ ma jël si côté attaaya man ci toog yi cuisinière ca togg na nañ may bàyyi bay wër rek di information <laughs> man moom mën naa feetu ci attaaya bokk ci ah. cellule combo stade bi waaw <laughs> président ñëw fekk ma fa bàyyi ma fa rek waaw man moom nañu ma dugal ci si waañ mi ndax mën naa ay plat gastronomique mën naa plat sénégalais mm. mën naa yeneen plat ah nañ may bàyyi moom moo féete ci cuisine ba moom daa bëgg ataaya man bu ñu ma bàyyi si may at ngay ngay togg may ataaya doon fa sa benn nga maamu traiteur ngay am foofu barke <laughs> am na solo de en tout cas en tout cas liñ ci mën a wax rek mooy ñiy critiquer nañ bàyyi critique bi mm, mm, mm. parce que tey jii dalay leen ni Sénégal dépassé gul sax stade soixante-dix mille places dépassé guñ ko ndax ñun ñaata espace lañ fi des am nañ ay àll yu dul jeex mm-hmm. la gi mën nañ fee am stade soixante mille places ah. nga dem Casamance am fa stade quatre vingt mille place hmm. ñun suñu àll yi macha allah tarkal la donte ne population baa yokk waaye gis nga infrastructure hmm. moo xam sportif la moo xam sanitaire la moo xam leneen euh, ak leneen la tey xoolal dakaar ni mu libre ci ay sax affaire làmb Demba Diop bu mosaan làmb mosaan am ñun suñu kër dañ koy tëj kenn du génn borom cantine dañuy wàcc tey nga am stade arena mm. mag a jam ñaajo Pikine am nga beneen stade ma nga Pikine nga am um, stade sax ak arena ma nga jam ñaajo nga am stade eh, ab maître Abdoulaye Wade ma nga jam ñaajo da lay leen ci kanam tuuti jam ñaajo kenn dootu fa dëkk man bëggoon naa jaay sama teene waaye bàyyi eh, allah ji bul jaay <laughs> xoolal nga jaay ma ko. yéen papa jëndal bëggoon naa koo jaay waaye bàyyi naa ko. bul jaay bul jaay fa la dëkk ba mujj. baal ma wàcc ko fa rek di ko tabax ndànk-ndànk. terrain jam ñaajo mu ngi mel ni nga am biir États-Unis de àll. waaw waaye bëggoon jaay de. ndax man moom ci wetu sphère ministériel la jënd. bul jaay bul jaay man yenn samay raq mbaa def nga fa ab pen waaw waaw moom kay ci laa tur tous les précautions da nga fay def benn case nga dénk ko ah, dama ne woon comme man jigéen laa damay sëy sama kër dikk laa jënd baam mel garaaw ànd naa mu solo ba am bàyyi ko mu jaay ko <laughs> ay mu jigéen ne damay revenir sama décision kenn du ko jaay fa toll jamono jee ko laaj kenn du ko koy ba xam naa ne daal macha allah daal xam naa ne daal euh, ah. stade bi bakkan ci waaye uh, war a wax daal félicitation daal xam naa war a jiital tey ñaax sénégalais yi nag mm-hmm. buñ ko def ni arena waaw ay dajji siis ay lakk pëna maam daal nañ ko bax tous les dispositions sécuritaires ci stade bi bu fa xew xew amee waaw lépp nañ ko sécuriser non xam nga mari daa bu benn affaire dafa am affaire yi sax warutoon am ay eh, dispositif ay sécuritaire ak yu ma xamul gis na doomu aadama yi ñoom ñoo war a nekk ay nit billaahi ñu bañ a nekk doomu aadama doomu su amul njiit day dépassé doomu aadama. maa <laughs> ma daane rek soxna Roque gis nga man barki yàlla ban parfois damay damay xool sénégalais yi. non billaay du vrai gis nga xam nga am na loo xamante ne ñun dañ ko war a dépassé tak ñun ñun tamit quoi. Ah, war nañ ko mën a dépassé. nit boo meree dafa am na war a wone sa mer mais pas. loo xamante ne ñëpp ñëpp ko bokk nga ñëw di ko yàq yow li nga yàq na nu yow yaa ko moom. yaa ko moom billaay yaa ko moom kenn moomu ko yaa milliards yi ñu xëpp noonu yëpp ñu ne Macky Sall defal na nangam defar na nangam. Macky ko hmm. defar waaye defaree ko xaalisam de. lay defaree ko xaalisam. xaalis réew la ko defaree. am benn siège boo fa yàq wala benn lampe boo fa toj. lampe Sénégal yëpp nga fa toj. te loolu mën na la coûter très cher. parce que instant yi mu ngi mel ni nga nga nga sàcc alalu jaamur wala nga yàq alalu jaamur. ci loo xamante ne yaa ko tey hmm. ni muy méttee ci moom est-ce que yow bu bu bu yaakaar na ay bàkkaar amu ci ah bakkaar am na ci de ak am na ci bakkaar bakkaar am na alalu askan wi nga salfaañi roqee da ko wax de moytu moytu leen ma ñaanu ko mer hmm. bi dalee du baax ndax man mi nga xam ne dew ma ci arena dew ma ca eh, stade eh, kii eh, ba hmm. xew xew am fa ab buuj maa ñëw daaj jib siis ñaanal naa ko naan ko yàlla na ko hmm. ndax mer naa loolu mer parce que capable nañ sax mat sa am fa ñu gañe fa Sénégal ñu taal fa <laughs> parce que gis nañ ko fa stade Léopold Sédar Senghor mm-hmm. yàlla suturaal nañu stade boobu. Mm-hmm. Euh, kii yi ñuy toog. ciment ciment la ciment <laughs> a mënoo koo daj. ciment <laughs> même boo fa taalee sax du def dara. te foofu sax ñu ci phase de réflexion. Mm-hmm. ay ay ay ay ay la. Hmm? te siège yi dafa seer dëggul Sénégal dañ hmm. ko jëlee bitim réew fay ci dédouanement fay ci lu cher da ngay toog di ah? jaayu hmm? amaana sax est-ce que du ay siège ma kii nii électrique massage électrique. boo la jar na bii xam nga ne VIP duñ toog ci siège como como. ah déedéet VIP bu ko tudd. loge la même chose. loge bu fa tudd. peut-être gerte bay nga ne. <laughs> man foofu baax na man virage su ma xamee yëpp damay <laughs> stade bi xam nga moo ci gën a neex stade bi amul toog comme stade la nga xam ne da doon toog Makka di seetaan joueur ñu nekk Medina <laughs> stade bi da ngay tiim joueur yi nii. di leen xol nga xamé zoo nga ne kii El Hadj Diouf la kii Kalilou Fadiga la waaw voilà loolu moo ci gëna neex mat sa ba dara du ko tay mat sa ba dem am am dara la c'est international xamna ni dal nañ ñu dimbal rek lillahi wa rasuli stade buñ ko yàqal ku mer ngam dama seen keur nga toj say kaas yi maam ak say kaas ku mer dal mom talal gas tok ci waaw ah, boo toogee doo toog a ku mer dal da nga tal gas tok duñ ko def duñ ko def mais ñaxtu mën nga ñaxtu def fekk yàqoo billahi marché pacifique mi ngi fi ah ah morceau yu xonk fi. dañ koy def à la chinois ah, ndey ma léegi nii démb gërëm na te terewul teewul liggéey na ah. waaw mu ngi noonu te comprendre nañ ah, li mu li mu mu ñaxtu comprendre nañ ko. jeex na. Ah, kon ngay jàmm ne ñooy. jàmm ne ñooy Sénégal ñu jëm jëm kanam France jàddu koñ. mais nag stade bi ku ci laal benn cheveu benn cheveu. tu vas avoir affaire avec avec moi. <laughs> avec Elimane. wallaahi man maa leen wax loolu. damaa bi danañ koy wax si tu touches un seul cheveu de ma <laughs> Je vais te manger cru. Item, si vous, si vous gâchez une seule chaise du stade, vous allez avoir avec tous les Sénégalais. 15 millions, de, 16 millions de Sénégalais. wala 17 millions seen kër lañ lay fekk nañ la ba nga xool fenn. kenn du xëjamal sama cere. <laughs> déedéet <laughs> en tout cas daal loolu bi moo ngi noonu nañ ko daal di euh, euh, sàmm parce que suñu alal la. Euh, ñun ñoo ko moom sama dërëm a ngi ci dërëmu Elimaan a ngi ci dërëmu roq yaa ngi ci dërëmu keneen ak keneen euh, mi ngi fi nañu ko nañu ko rek euh, defar mu rafet ndax ñun ñoo ko moom kenn moomu ko duñ ko déplacé duñ ko lem fa mu ne déjj fa la nañ ko déjj bu yàqoo ñu defaraat yeneen leneen ci biir yéenekaay yi yow Elimane mm-hmm. muy li nga xam ne rek mooy wàllum local yi ba léegi pënd ba wureegul ndax am na ñoo xam ni ñoom itam euh, liñ naan des mauvais perdants euh, ndax ne nañ baaxul ci am réew euh, ñàkk ba pare ñànki mm. mën naa mën naa ñàkk ku ci mel ni genre Aliou Sall gi ak yenn maire ci diwaan bi ba ñuy installé seeni ñooñ Euh, teewuñu benn yoon te la nga xam ni mooy mooy installation ba passation de service bi am na ñoo xam ne sax ñoo ko defar seen bopp gisuñu ancien maire gisuñu dara euh, ju bari nag ci euh, ëttu yëglekaay bi di ko xëyee mm-hmm. ne nañ ci bàyyi xel parce que quoi qu'on diir dire ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te comme jongante la woon rek jongante moom faaw mu am ku gañe mm. am ñu ñàkk match ci football lañ ko xam mm-hmm. mais bu dee ay élection moom ala kulli aal bu match nul amee premier tour deuxième tour jàpp ne match nul du am ndax deuxième tour ba mooy prolongation ya mhm. faaw kenn dugal bu kenn dugalu ñu dem tiro bi mhm. faaw am ko gagné waaw ndax suwaat gardien ya ba dana génnee ñaar comme Mendy waaw kon tiro bi moom mooy recours waaw soit soit mendi dana génnee ñaar Gabaski génnee benn Sénégal jëm kanam conseil départemental bu Kaolack moom ñoom ñu ngi tiro bi bi léegi ñu fi ne ni ñoom ñu ngi tiro bi waaye géejawaay tamit Aliou Sall ñi nge désormais beneen xar kanam Aliou Sall la ñuy gis. ndax. ndax liñ ko def ci élection yi nii daf ko xaw a hmm. waaw daf ko métti. waaw Aliou nag mën na ko bañ a métti nag wax dëgg yàlla nañu dimbali. xam nañ ne yow yaay rek président quoi xam nañ ko de. wax dëgg yàlla xam nañ ko moomu hmm? le frère le frère de la euh, euh, de la république. waaw mais nag taxul géej waay nga moom moomul géej waay de. géejiwaay ñëpp ko bokk ñi nga eh. xamante ne ñoo juddoo ci géejiwaay yaroo ci géejiwaay mm, mm, ku ci nekk am nga baat am nga droit yëkkati sa loxo ne man soxla naa géejiwaay pour defar ko man mi sax soxla naa Kaolack te bi ngay moom bi muy jël géejiwaay di nga ko jox waaw askan nekk ko jox ñoom ñoo yëkkati seen carte votel ku ne ko liggéeyal mm-hmm. ñoom dem nañu ba gis nañ ñoom gisatuñ seen bopp gisatuñ bopp ci ci ci ci Aliou Sall xool nañ keneen koo xamante ne am nañu yaakaar ci moom. moo leen doy moo leen doy muy Ahmed Aïdara. Mhm. ñu voteel ko moom dafa waroon a jël téléphone am rek ne ko allo booy félicitation. Ah. mu jeex passation de service am na. demal nga ah. jox la ngay mu ah, jeex gis nga la xew ca installation ba. mais installation forcé wuñ ko sax mu ñëw si installation mais passation de service. c'est forcé parce que c'est entre les deux maires. voilà mu ngi noonu. parce que ñun gis nañ fi Kaolack fi installation bi préfet préfet moom mooy ñëw installé ko. parce que mhm. préfet moom installation. mooy ñëw installé ko installé Serigne Mbuub mais c'est passation de service bi. yaa Mariama moom c'est forcé mu ñëw ñëw ñoom ñaar ñu. béetoo bii kuloo ah. mu ne ko mairie Bangoog. liggéeyal lii fi nekk lii fi nekkoon man lii laa fi liggéey jot a liggéey. lii laa fi commencé yeggali. yeggali de service. passé lii laa fi jot a liggéey. lii laa fi commencé. Hmm. yeggali liggéey bi yeggali liggéey bi. nga mu ngi noonu commencé yeneen keneen bu ñëwee yeggali. voilà léegi nag continuité la. Hmm. su fekkee da nga maa soxla ci benn fànn maa ngi ni suis disponible ah. sama téléphone a ngi nii. tëjalu ma ko kenn. tëjalu ma ko kenn wala nga ma benn numéro. ma conseil la. mais loolu lan lan la lay wàññi. ah nee na de ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay ah, jaar. mu ngi noonu. mais ñun saa waay. dañoo ñeme xëcc ko ñodd. <laughs> mais lu tax africain sax ci jëmmu boppam lu wax Sénégal africain lay wax lu tax ñu bëgg nguur <laughs> yow. fekkoo sa maam nekk buur. <laughs> Hmm? léegi yow nga ne yow buur ngay nekk. wa ila yow mi di. fi fi ay royaume amu fi de. royaume amu fi de république la ñam république la <laughs> te gëm yalla waaw su fekkoon nag da nga fekk sa mam nek bour nak bour gour nono la. ay bour ah. de temps la rek. wa nono la. léegi nag bu kii demee yow nga succédé ko nangam nangam nangam nangam su fekkee ah, sa sa kiiwul nekkuñ ci ci ci tarixa ba bu bàyyi wàccee doom yéeg doom yéeg xalifa ak yow noonu yow maire nga dañ laa hmm. fal te maire mairie <laughs> sax mairie mairie mairie comme yi nii nii nii yàggul yàggul fii ay ay kii moo fi amoon ay communauté rurale. ay arrondissement ay chef de seen moom moo fi amoon ba ci chef de quartier ba ci chef de village ak yooyu moom moo fi amoon. finalement ñu xool ñu ne léegi pour gën a mën a defaraat ah nañu def ay mairie loolu moom moo commencé xaw ma ay 2012 xaw ma 2014. mairie mooy ah? mooy mooy ndey ji réew jaraaf. voilà ndey ji réew jaraaf. léegi nag lépp lu metti askan wi ci yow lañ koy jooyee. ah nga àggali président. jeex na loolu yëpp ngir. état bi gën a mën a jege askan bi ñoo taxoon ñu def ko ngir tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci seen gox ñu mën a jàppale seen askan. ci nga mhm. xamante ne moo fa manqué yenn compétence yi. voilà. moo tax ñu ne ay gouverneur ay préfet ay sous préfet. da ngay gis koo xamante ne da koy xëccoo te fekk xamu ko. wallaahi waaw surtout ça et di insister foofu. Hmm, te may insister xëccoo te xamoo. li ci biir gis nga nit. dara balaa nga koy def demal nga geestu ko. Mm-hmm. jàng ko xam ko am si xam-xam. man affaire yi nit ñi nit ñi si jëm jëm bopp ñi nga xamante ñoom ñooy joxe seen carte sax ñoo waroon a vérifier ñi nga xamante ne yaakaar ne ñii bu ñu leen joxee xam nañ ko wala xamuñ ko jox leen ko yow koo xamante ne normalement xam nga kan lañ ko war jox koo xamante ne mos na nekk benn conseil même bu dul conseiller liggéey na xam na déroulement administratif wala wala déglul ma expliquer la. nekk nga conseil ci mairie bi wala nga nekk adjoint xam nga ne ñooñu. ñoo gën a. placé wu sax ñoo gën a placé wu sax pour nekk ay maire parce que benn. Mhm. yow xam nga ni mairie doxee. Mhm. xam nga lan la laaj. xam nga lan lay bañ. kooku bu ñu ko joxee rapidement day ñëw rek adapté wu ci liggéey bi. liggéey mais bu ñu xool diw rek. am na tur waaw am na tur am na lii am na koppar wala am na naa loolu liggéeyul mairie. gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy am xaalis ba pare ñun léegi bu ñu leen joxee mairie bi affaire yi day gaaw nangam nangam affaire yi demeewul noonu de parce que amul kenn koo xamante ne ngay jël sa koppar bi ko liggéey sa bopp nga jël di ko këpp si mairie bi <laughs> kenn du ko def déedéet xelaatuñu ko parce que foofu noonu parfois dañuy nax ah, ñun dañuy ne ah diw de bu ñëwee du la nangam yi demeewul noonu mairie bi joxul ko ci def business am boppam business am la ah, mairie bi beneen liggéey la mm-hmm. gis nga boo ko joxee ku ko xamul tamit. affaire day gën a nërmeelu rek du dem fenn. moo tax gis nga képp koo xam ne rek bëgg nga dagaanu baatu askan wi. Mhm. demal nga geesu ko su fekkee député nga bëgg a nekk xamal ensemble national yan code la laaj. yan charte la laaj mm, lu waaye nga xamante ne yar moom moom moom mooy am ci article nga xam ko. Mhm. maîtriser ko nga xam ne yow boo fa demee rek xam nga lii moom moo moo ma fii xaar. Mhm. bu boba bo ñëwee da ngay adapté wu da ngay xam. am na député yu melni man man xamuñ sax lu code pénal mais nga nek fofu noonu rek bu gaay commencé euh, Moustapha Niass di wax yow yaa ngi ne nii xoolal gars yi bu leen di wane si télé bi. nelaw ba dañuy nelaw ba yandor <laughs> gis nga koo si koo si ko diw day tëbb ci kaw parce que day fekk mu ngi gént di feneen. wala mu nelaw ba àgg bi tey nit ñi tàccoo rek mu tëb tàcc ànd <laughs> sax lu muy tàcc. kooku lan la yëriñ askan wi. sunu assemblée nationale moo dàq suba la tabaski. barka boobu ñun dañoo dañoo feebar. Sénégal gis nga. kon nag yàlla jàll ni danga fànn seetaan yi. assemblée. nee nañu Ahmed Aïdara journaliste la du journaliste professionnel la wala du professionnel ñun loolu soxaluñu. Hmm. xam nga lan moo ñu soxal. su fekkee moom mm. leer na ko jàng na na ñuy doxalee mairie. Mm. xam na ko na doxal mairie Guédiawaye rek loolu moom moo ci ëpp solo. liggéey rek ah. tamit euh, Aliou Sall su fekkee moom daa bëgg Guédiawaye si xolam. li laa war a leen a bàyyi ginnaaw. ah am na lu mën a def tamit nag. na ñëw jàppale Ahmed. même bu jàppale Ahmed yu y a d'autres réalisations yoo xam ne mën na ko def au niveau de Guédiawaye. jeex na. sàmm loolu jàppale Ahmed la di loolu jàppale Ahmed la ba ah, tey. parce que tey jii Marie Dabo tey jii bu ñu la dénkoon Kaolack lépp loo xam ne def naa ko ci biir Kaolack. billaay sama njëriñ la lay jàppale si mairie avantage nekk fii di xiiroo di ŋaayoo gis nga. falu falu taxul taxul nga mën a defar ak yooyu noonu. billaay billaay xam nga fii bëgguñu sax falu. mais ñoo daq defar dàq defar fii. te boo leen waxee sax dugg leen si politique ñu ne man la ah politique la du ma politique. du ma politique. social rek laay ci laay ci laay dox. mais sénégal vraiment lu nekk rek lu ñëw rek ñu politiser ko politiser ba nit léegi sax nit ñi politique boo ko waxee sax wala nga ne diw politicien la duñ la jox jox sax tout cëre tous les nos noms au kay amul benn benn valeur politicien amatul valeur bu njëkk boo gisaan politicien da nga koy naw laaxi bëggu ko parce que da ngay xam ne kii patriote la mais réew ma ko ñor léegi ñoom alal ji moo leen jiital parce que koppar gi ñuy am ci suuf mm-hmm. hmm? suuf yi ñuy jaay alal ji ñuy luubal ah yéen nag yéen nga jëm fa sa ab hectare. toog di la wàccee ñun dafa duñu de. génération bi léegi ñu yor nii nii nii amul kenn ku dof. sama xaalis balaa koo kenn lekk di nga wala set hmm. wécc. génération après l'indépendance ñoo fi ne de. <laughs> barke yonent bi. déedéet après alternance. génération après alternance. <laughs> indépendance jeexoon na de. <laughs> indépendance jeex na alternance. après ah, alternance alternance mooy jamono Ablaye Wade. après après M23. kon jeex na ñoo xamante ne dañoo jàng jàng xam droit xam lépp. gis nga lépp loo xam ne njuuj nga ko si benn centime. dootoo ko defati dootoo ko defati parce que xam nañ ko. dootoo des na tuuti nag. xam naa ne askan wi nañ commencé dugg ci mairie yi ñoom sax mari daa booy. di laaj papier yi naan leen génnee leen ñu xool. suñu droit la. def suñu investigation ñun ñii citoyen lambda yi kenn ku nekk am nga droit ba ci gone gii soog a juddu. Mm-hmm. am na droit dem ba mairie Guédiawaye ne Ahmed dara monsieur le maire mu ne ko naam. Mm. mu ne ko damaa bëgg nga defar ma situation mairie bi ci at bi mm-hmm. lan nga fi réaliser lan moo fi dugg ci koppar lan moo fi génn ci koppar am na droit bi c'est son droit le plus absolu. mais duñ la ko jox. mais tey ngay dem fii mari daaba dugg mairie na monsieur le maire laay seen buñ na hmm. fëtëngee sa yax yëppay damm doo ko gis sax doo ko gis moom mooy problème bi maire bi nga dul gis mairie bi dañ lay bëtam bëtam bi la tee maire yow maire amul jotu mairie bi yow maire boobu boo ko joxee mairie bi da nga ko doxal fu mu koy doxalee léegi xam nga ñan la fay bàyyi suq yi sama galaas gi waaw xëy sañ sañ seeni seen i cappe di cokki cokki gis nga suuf suuf yi ñu luwal yëpp ñoom ñoo ñoo ma kese la parfois sax nga fekkee si àll bi ndeysaan nga xam ne seen njàng ñenn ñi sorewul billaay lu nekk la ñuy daj. billaay ngay gis koo xam ne ci mairie bi lay liggéeyee. Mm-hmm. li ma lay wax dama ci am source yu leer. ah moom kay foo foo dem benn dem nañ. ku ma ci woo ma ma yóbbu la indi la si élément yu leer nañ yoo xamante ne <laughs> élément sonore la doon ñoo xam ne dund nañ nga leen dégg li ma la bëgg a wax nii. billaay source yu leer nañ laa ci am te kooku noonu. su bu amee si lu muy riposte dama woo téléphone wala mu ñëw ma invité ko fii rajo ñu toog pelloo débat bu weddee ma woote en direct ñoo xamante ne def nañ leen ko ñu ñu réactionné mu dégg ci mairie ba lay liggéey ñëw encaissé seen xaalis nga ko baaraam dégg nga ci mairie bi lay liggéey ñëw si mhm. <laughs> village bi ne leen nangam dafa am benn projet boo xam ne génn ah, dañ leen ci bëgg a jàppale parce que ay jigéen ngeen nangam nangam ku nekk da ngay joxe nangam est-ce que kër yi barke yonent bi jigen ñi ku nekk joxe nangam nangam nangam nangam mu dajale xaalis boobu. Furas furas dal di xëddeen. kenn suba ëllëgoon gannaaw suba. ba tay hmm. man lañ ko jooytu manuma ci dara <laughs> li ci mën wax man li ma ci man moy li may def ni addu. Ah. nañ bayyi lolu am ndombal tank rek. sa nga nga profité sa ndombal tank bi di salfañi ala lu askan bi di triand nit ñi di def ay escroquerie hmm, hmm. jaadu wul mom jaadu wul de. gis nga nguur day jeex. day jeex fii nguuru yàlla rek a dul jeex. <laughs> nguuru yàlla kaase moo dul jeex. léegi nag bu demee ba jeex yow yaa ngi doon def loolu. aduna wëlbatiku nag ngay nag ngay nag ngay boo dajeek ñoom noonu la ñuy xoolee mari daal te pourtant li ngay lekk si ñoom du dara. mënoo ci mënoo ci am loo xamante ne saa waay da nga koy lekk à vie. Mhm. ngay jaay si sa dignité jaay sa ngor. jaay sa ngor. xeeblu sa bopp. xeeblu sa bopp. yëpp sa bopp. mari daaw te te Elie déguma la soxna bokk na ci li ma gën a remarqué mooy tey. Hmm. da ngay gis koo xam ni yow soxna Roqee dañ koy jox cër. Hmm. am mari daaw ne ci koñ. Hmm. baax yaru waaye dugg ci politique rek changé yow wekk la nit ña wegoon léegi dañ lay mm-hmm. lan euh, est-ce que newul tamit laaj la newul ni tamit. Euh, nek gam nek won ci koñu peut-être genre bu buum solo la rek da ron xaar juste am ben grade pour simi ko dem def lu ko neex. <laughs> Euh, man xam nga lan lay laajte man c'est um, euh, affaire du mairie parce que yow da ngay dugg ci politique. Ah, mel benen façon. Ah, kañ waa léegi lan moo tax nga soppeeku manam politique benen manam benen benen askan la wala benen benen benen religion benen dimension. <laughs> voilà manam politique mom lan la. en tout cas xaw ma politique bu njëkk de politique. dañ daan wax ni c'est c'était pour parce que ñu fédéré fédération. la ah. politique bu njëkk ñu ñu boole. ñu boole tabax dara defar dara teg. mais tey politique xaajaloo la waaye religion la wala ab ethnie la. ndaxte maanaam man day mari su ma bokkee ci ethnie séeréer damay làkk séeréer waaye su ma fa jógee daal di dem dëkk ca pël ya ah. damay làkk pël waaw ah. xam nga lan la <laughs> léegi politique léegi bi hmm. maanaam ab salte la. Ah, ab salte. bu ñu demee ba xam loolu xam nga nan lañ ko tuddee léegi. Mm. léegi ki ki ki ñu bëgg a ñëw am dara si nit ñi man defuma politique politicienne man bokkuma ak politicien yi. ba pare te yaa ngi politique. politique politicien ndax nee nañ waa ji accident daa am <laughs> gars yi euh, oto bi këpp ñu ñëw kenn ki naan ñu mun a gas leen pax dugal leen ci. ndax mm. dee nañ kenn ki ne man deewu mën ko ko politicien la. gis nga <laughs> waxi politicien la te moom deewul de pourtant. <laughs> ñu boole parce que moom moo tax ma ne. xam <laughs> politique léegi beneen façon xeet la ndax ñoom dañoo am seen benn langage bopp. seen jëfinu bopp loolu jarul laajte ma loolu kay fi ne nii moo tax ne ma ne la kii dane boo nekkee ci koñ bi sol mbubb bii ëllëg nga dugg ci politique mel ne nii moo tax ma ne la xeet dama koo gis sama koñ da parce que xeet bi nga bokk ñoom noonu la ñuy doxee philosophie ñoo ko dama koo gis sama koñ de soo boo dekkee ci xeet bii hmm. jógee fa dem ci beneen xeet seen jikko ngay yor moom de fii la toog hmm. naan waaw diw du ma ko jàppale jàpp ko yekk ko lu mel ni xeme wañ bu ca dal dee. Mm. Mm. mu doon tàll cin wu ne cin ne ca déjj du bax te teewul taal baa ngay tàkk. ñoom xeetu politique. waaye ci élection yi ma xëy gis ñu ne diw lay jàppale ma ni déedéet kii du moom kay xanaa daal ciw dara foofu xam nga ñun fii Sénégal dañoo bari ay xeeti xeet ñi pël lañ ñi séeréer ñu olof ñi joolaa mais dañoo amaat beneen xeet bu rax suñu biir muy politique <laughs> xeet boobu ñoom mun nañoo wax lu dëgg mun nañoo wor mu yor nañ koy weñ fu tooy ñu dal. mën nañoo tox. waaw toxu jikkoy transhumance. ñoom jikkoy xorondom lañ yor ñoom dañuy roñ roñi dem roñ roñi ñëw. ñoom jikko ji ñu yor ñoom xeet boobu noonu dañoo rax Sénégal ba léegi nag loolu doyut de dañu fee bëri di produire. di produire. samp fi dynastie léegi nag loolu jeexatul dynastie lañ fi samp. ku yek wacc sa morom yek legui loolu daye tout sen culture dañ ko bëgg legui dugal ko ñun legui ci suñu bir société bi bëgg ñu ci wal legui xam nga lu ñu walé suñu bëggee juk defi dara ñun lañuy jëw kay leen japp ndax ñom nak bu ngi produire way tax ñu ñu bëri ñun ñu wëen ëpp legui ñom duñ ñem ci sen bop dañuy ñëw uti suñu renfort yobbu ñu hmm. ñoo xet politique <laughs> mbedd armée <laughs> noonu lañuy def legui nak maanaam ñom renfort bobu ñuy uti si ñun mooy tax ñu ñuy bëgg di ñu wàllaale wàll yi seen jikko seen virus yi virus lan la contamination totale maanaam si ñoo ne jom fu la fay fayda jom léegi ay locataire lañ ñàkk jom <laughs> ay titre foncier ay titre foncier mais politique bi léegi ñoom yoruñ titre foncier de ñoom territoire national bi lañ bëgg occupé ñoom lan la te ñoo changé doxalin indépendance gi ñu bëgg nag duñ leen ko jox déedéet <laughs> souveraineté gi ngeen bëgg du ngeen ñu leen ko jox xalaatuñ ko. et duñ defi politique maa ngi yow. kan man <laughs> ah. su fekkee li ma dégg nii moom mooy politique moom defuma politique. xeet la <laughs> fa dem. su li ma dégg nii kii compte nii yow yëpp mu ngi ci politicien. ah fa dem moom nga fi gis. xeet si ñenn ñi koy xam naa. damaa xam ni bu. mais pour pourtant nag am na ñu gore. fuqale nag def nañ ko. Ah, waaw fuqale. am na ñu gore ñoo xamante ne saa boo leen doon woowee ay milliards du ñu dem. Mhm. man gis naa ci koo xamante ne duma tudd turam. parce que su ma tuddee turam. su ma tuddee turam ma defal ko promotion. Mhm. te bëgguma koo def. mais kooku ak moo wow kooku xoolal même parti au pouvoir sax woo nañu ko. Mhm. si pli si moom pour mu ñëw. mais defal lànk ba tey fa mu newoon fa la nekk dëgër fa bopp. daa rax dafa rax bokkul ci xeet bi. wala mbokk ancien école. xoolal. te te man kooku daf ma jaaxal kooku sax ñi bokk ak moom parfois dañ koy xas si loolu. <laughs> gis nga moo tax ma ne dañ ñoom seen xeetu bopp lañ yor seen. culture bopp soo bokkul ci ñoom rek da nga leen di sonal. dignité mhm. dañuy def sax lu ñuy def ba écarté. lu mu la mayul du la ko xaj. moo tax maanaam li nga wax sànq dañoo mm. bëgg nguur ah, man nag gis nga lu ma jàpp Ndeye Marie passation de service ngir yàlla. Ndeye Marie yaa fi toogoon doon liggéey doon présenté. dafa ma fi lu baax waaw Ndeye Marie man su ma ñëwee di bëgg a présenté émission bi du ma la laaj. noo ko doon présenté. nan laa ci war a améliorer. nan laa ci war a noo jëlee yi. ah dama la ko laaj passation de service la ñu wax. lan moo tax ñoom duñ fa teew ñoom ancien maire bi lu tax du fa teew. le mm. maire sortant lu tax du fa teew. Mhm. moom lan la. parce que moom euh, jubal na ba mu ba mu toogee. déedéet ndax yàlla mi ñu sàkk sax. Mm. yàlla mi ñu bind. moom tàmm na bu nit génnee àdduna sax ñu defal ko lañ ko war a defal jébb ndaxte nee na moom loolu ñañ koy defal te moom lay dellu. Hmm. waaw hmm. waa léegi yow nit ki yow. lan moo tax yow moom fa nga jógee yow doo dem nga ne man lii laa fi defoon lii laa fi bàyyi yow mi fi ñëw lii nga fi war a eggale. est-ce que def na laa wax lii war a nga war a. question boobu laa la posé kay est-ce que def na même bu defut. même bu defut war naa mun a wax. lam ci toogee. dëggu ma la doxee mooy quoi qu'on puisse dire Elimane tey jii. Hmm. fii nga nekk ci rajo bii di sunu kër. am nga loo bëgg a def. Mhm. mais tey peut-être sa temps euh, imagine bu ñu ko doon wax bu ñu ko doon natt ci âge yaa ngi ci retraite. Mhm. mais am nga lu mu néew néew néew Elimane changé na fi làmp Elimane peinture na fi miir. Mhm. te xaarul directeur général. Elimane jënd na fi retour. te xaarul kenn loolu yëpp yaa ko fi def ay réalisation la mais am na yeneen yu Elimane bëgg a def par exemple mooy lan euh, de euh, sax déplacer local bi wala mu indi yeneen machine yooyu yëpp ay ay mbébét la yoo buggoon a def ci biir rajo bi. mais yàlla def ko roqee ñëw na nga ne ko su ma sañoon lii ak lii ak lii ak lii moom ngay continuer parce que samay mbébét la bokkoon. Hmm. roqee ñëw doxal ko. waaw mais wax ambition roqee ne ko waa dégg naa la. pare def la hmm. leen lu ko neex. def lu ko saf. te la ngay def nag méngoowul sax. la fa la Elimane bëggoon këñ. te Eli sax moom la mu def moom. askan wa bëggoon nañ ko la mu mbébétoon ah, maanaam xam nga day nañ nit ku dee yóbbaale mbébét loolu am na bi sax mbébét la ba dem yóbbaale mbébét yóbbu kon ñoom ngir yàlla war a suur yi le maire sortant nañuy ñëw teew ci passation de service yow it le nouveau maire ngir yàlla war a suur yi la maire ba def ci ay réalisation ah. yam mënta eggale mu leer na lii njëriñu askan wi la yow it góorgóorlu ca def ci sa kéemtalaay kattan yow it loo mën a innové indiwaat ko yow it nga indi teg te bañ a rëy Elimane na politicien du rëy. Hmm. man am na yoo xam ne tey Elimaan Elimaan na ko mën a faj. Hmm. damay dem direct ci Elimaan. su ma mënta am ci Elimaan ma jaar ci Roqaya mi Sadio de Kamam wala mi directeur de cabinet du ma am rëy gi. Hmm. sama yoon ci ku ma bokkal parti ku ma bokkalu parti je m'en fous man askan wi ñoo ma ñor. sama dëkka ma ñor du ma am rëy yu dem seeti Elimaan. parce que mairie du parti. du parti. mairie institution la du parti. kon yow mi yow dëkk bi nga bëgg a liggéey kon waa dëkk bi yëpp ñooy maase bokk ci liggéey bi. dinaa laaj kenn ku nekk sa xalaat. waaye man dangaa xeesoon damaa ñuul bokkuñ. bokkuñ fu ñu bokk déedéet du ma ko def liggéey ci mairie bi amut. te nag lu ma jaaxal Elimane wax na ko sànq mooy suq yi nekk ci biir mairie <laughs> suq yi. sëriñ bu mu na ñiy jaay jën nañ dem jaayi jën. ñoom ñiy jaay oto nañ dem jaayi oto moom cee euh, si tabaski ren bii. dafa am ko xamne mom ñu ngi ci mairie bi nee nañ fa lay liggéey man dama koy xey muy xey gis muy dem di ñew ah. di tourner di dama ko dëkk man gisu gisuma bureau <laughs> xawmu lu muy liggéey ci SDF la waaw. ñaarel ba mu ñew taxaw ne ma fekk man gàddu sama saak bay ñibbi. Hmm. mun ma daal di may jox ñaari photo d'identité photocopie d'identité. Hmm. ne ma dama bëgg nga demal ma ci kaw mu ne ci mairie bi. Hmm. pour ma jëlal ko aide tabaski. ci ñaari femme ndax kenn ki dafa dem Dakar te kenn ki dafa accoucher man waay ko man man ngay waxal de man <laughs> kon de doo lekk xaalis bi ndax xam naa ne affaire de njuuj njaaj la. la si jublu jox seen ay ñoo ñu nax na leen ne leen jox leen ma seen identité dama leen bëgg a inscrire ci liste tel te fekk na ñu yëguñ tinut mu dem photocopier ko jël ko du ci ut aide tabaski joxuñ ko ko xam nga ñan lañ koy jox néegi doole yi. néegi doole ji ñi amut. ñoom la ñuy recenser pour joxe leen aide mhm. tabaski yow nga dem jaar ci bi suuf dajale sa ay identité yu dul jeex photocopier ko ñëw taxaw naan aide xaalis jigéen boo taseel jox ko waa léegi man Ndeye mari damay muuru léegi ko nekk ci photocopie identité bu moom bu leen tooy mees moom nu mu fay demee dana naqari lijjanti dara Sénégal gii luñ bëgg te moom ci mairie bi lay liggéeyee weer bu dee mu dem percevoir salaire am te moom gisuma lu muy liggéey nag te nee na ci mairie bi lay liggéey kon day gore ba ëpp day gore ba ëpp xam nga gars yooyu tamit ñooy yàq réputation seen dignité ana moo ana dignité ñun ah yow dignité dañ koy judduwaale ñoom daal jàpp nañu politique gi da ngay dégg ku naan la soo bëggee am xaalis da ngay politique léegi ñoom xaalis bi ñuy am fan lañu koy jëlee ñoom ñoo ko liggéey ñoo ko moom wala askan bi moo ko moom sàcc gi ci biir politique gi xaalis bi ñuy jël di ko di ko di ko di ko lekk di ci tabaxi kër di ci jëndi terrain di ci jëndi oto alalu askan wi la dañuy sàcc te nag yow mal xiyaam képp ku sàcc maanaam ganaar sax boo ko sàccee danga saxi dum dafay déglu euh, kii Oustaz Alioune Sall nee na man yërëm naa leen lépp lu waay sàcc yëmal xiyam dañ koy def ci saaku yan la ko waaw ay waay ko sàcc milliard foo jëm yow nga sàcc ay immeuble sàcc ay terrain sàcc ay milliard waa léegi loolu yëpp nga war koo yenu jéggi siraat <laughs> da lay leen ne yow moom Siral bu yowoo rek nga dem rek <laughs> maanaam fiir ga bul jaar ñëw rek tëmb ci biir. da xam ne ñi gën a oyof rek mënuñoo jéggee Siral noonu noonu noonu asa koo xam ne moom yéen wut dara yow nag ay immeuble ay terrain ay milliards ay oto lu ne nga sàcc. xol sax xolu nit sax sàcc nga ko ndax def nga nit lu koo loo xamante ne nii naqari na ko ci àddunaam yóbbu nga xelam. nga sàcc waale te la te ñu ne la fiir ga moo gën a sew wu moo gën a sew wuñ. déggu ndey mari mën na la ñi nga xam ay yàlla ñu yàlla may ñu jéggi siraat dara dara dara dara ñeenuwul dara. rek jéggi problème la siraat ga daa métti. ak samaang nag yow mu yënu ay immeuble loolu duñ ko xalaat ñoom. aywa ñoom est-ce que ñoom bokkuñ ci. ci ci non yomal xiyaam yàlla daa waroon a bàyyi yomal xiyaam mu mel ni àdduna ngay seetaan écrans géants yi dañoo war a defar ay écrans géants ah, ñuy xool. su ko defee ñuy mën di gëm sax ne yow mal gi am na na. ay la la la waa ji waxoon yow mal xiyaam bu doon ay écrasé yaa ah, man dinaa ree sama bopp. Eh, la fay demee nag de. noonu. Ah! lafay fay demee. kenn ku nekk taxaw di xool sa bopp doo tal doo kenn ndax sa bopp ngay tal. Maru mari daam mi mu mos naa fi romb muus kajj ko. nee na yonent yàlla Iisaa dana ne ay xeet euh, xeetam dana ñëw ne na ko nañ ko na leen dimbale. Hmm. mu ne leen taluma leen ndax man dañ ma tuumaal ne doomu yàlla la. Ah. musa moom tamit. Ah, même chose euh, nu mu tudd sax. Euh, keneen Ibrahima ak ñeneen ak ñeneen man tal naa leen lépp. ndax man maa ñaanoon yàlla mu alak samay nit jigéen góor jigéen ci menum yonent yàlla Muhammad kese moo nangoo ràngoor moo nangoo ràngoor ah yonent bi fas yéene jaw julli yàlla na ko déedéet tey julli amul alayhi salaam amul dara amul imagine loolu ñooñu noonu nekk ay yonent ñoom taluñ kenn lu dul seen bopp astamaak yow mi nga xamante ne daa lambda musuma liggéey lu baax boo xamante ne ni yow defoo fi dara <laughs> du toog ci taatu garab yi di jëw ku romb nga wax ci moom. di luubal alalu askan wi koo mun a nax nax ko. te nag Ndeye mari fii kenn dofut. ñëpp muus muusin bokkul rek. ah kañ. kenn dofu fi. naan li cin li xeeñ eh, bax na xeeñaayu cin eh, wuute na. maanaam ma cin eh, cin bokkul safin konoon doo ma yàkkal du la yàkkal. cin bokkul safin moo tax ma ne la kenn dofu fi. ñëpp muus muusee bokk ñu roowul rek. muusin ah. moo bokkul. man de damaa jom waaye ñoom bu ñu jàppee ñoo gën a muus askan wi ñoo ngi nax seen bopp gën nañ fee muus kenn maanaam ñun dañoo muus ba leen ci biir. Eh, xam ba xam ba ca. <laughs> loolu xam ba loolu lañ leen def. nañuy def rek. seen bës ngi ci bës yi gone guñ ko wax nga foog ne tabaski la waaye bës ngi ci bës ki am na si ñoo xam ne foogoon nañ ne atum ren gii. duñ wàcc waaw duñ wàcc. waaye dama doon wax. bilaay sànq fi may xëy rek maa ngi dégg Iran di ko wax Malick yow mi diin moom mu ngi fi rek Malick yow mi diin moom du fi mus a jug moom nguuram gi du fi mus a jug ci kaw suuf du mus a jug ci aalamam gi ci lépp. du ci mus a jug. nguuru nguuru nguuru fira nguuru firaane foog nañ du mës a jeex ndax moom mi taxaw ne maa yàlla. xëy nañu boole kook ndox ma ak ay garde kooram ak ay garde fuum yëpp. jaxase ci biir ma ne ko ci nguuru ga nag moom ma demoon tiire yàlla ne rey naa ko yàlla tawal ko deret. dootu ko def mu toogee fan mu tawal koy ay yàq. ay ay ay mbott ak Ibrahima gis nga sa yàlla ji rey naa ko mu ngi nii dee ba nëpp. te lépp yàlla ngi koy piégé. fekk moo ngi ne moom moom suñu mën a piégé nag. <laughs> daa mën a seetaan li ma am sax waxoon loppa ni yàlla seetaanu ko seetaan na lu ko raw. lu ko raw yàlla dégg ko keroog Ndeye Marie nee naa la yàlla leen rek la mun fekkee wu ma te fekkee na lépp. fekkee wu ma ko moom loolu moo munu ko. léegi ñu wax rek dafa am may sax. lépp la fekk. daa am temps may jàngi Dakar benn waay. Euh, dama doon jéex ndax man fi may jàngee ak école ba sori yoowut moom daal heure bu muy xëy saa yu may xëy di jàngi rek daf may daf may room ak otoom benn jour nag xam naa muñ na ko mënu koo muñ mu daal di may stoppé daal di ñëw ba samay tànk freiné ma tiit ba yéeg ci kaw trottoir bi bul def da bul doom xaw ma lan wax a wax damaa bëggoon ñu am dem fana am fu ñu dem foo xam ne kenn duñu gis ma ne ko mais yàlla ngi lay gis. waaw ne ko yow rusoo sax ma ne ko yow rusoo sax di wax moo tax yàgg ma ni man désormais lu ma dul nëbb suñu borom bi du ma ko nëbb doomu aadama bu fii ma tool nii lu ma dul du ma ko nëbb doomu aadama parce que yow boo ko nëbbee si bi yàlla gis na la te gis nga yàlla nag dafa bëri sutura moo tax mu defaral ñu bëcc guddi gis nga di guddi gi moom bu jékki mu suturaal doomu aadama yëpp <laughs> musiba doon def maa yore woon jikko joo xamante ne nii ba ma màggee dama koo récc boobu xale laa <laughs> damaa taaw man guddi pour ma génn ko problème amoon naa jàllaa bi boo xamante ni su ma ko solee génn da ngay foog ni góor laa guddi bu guddi laa koy sol su may génn su may génn nag gàddu sama torse. déedéet mbedd saami. làmp boo lampoo lamp ñu toj ko. lamp bu ñu tey tey. këris ñu tojaat ko. waaye man daa boolu ma sa wax sama torse laa yor. man daa sama séenib taatu garab. dama cey gis di xawa a leer xet rek ma nit nga tasaaroo ma gri ci ko. war ma go continuer xam de li yalla sutura la bëgg kenn du taxal doom adam mo tax billahi war nañu sutura sen bop war nañu sutura sen bop ci càcc gi. gëm yalla ndialo gi. amul bu ab Aziz de euh bam nekké buru mak mom nekk ci nguur gi. nee nañ événement jot. doom yi di jooy dar di jooy ne pour mu xotti leen yoru xaalis. Mm-hmm. te pourtant moom buur la moom fa muy liggéey dañ koy fay. dafa dem ne pour leb ndax xam nga doom ni mu saxee si xol. Mm-hmm. ñu ne ko ndax mun nga ñoo assuré ne liñ day lebal. weer bii di ñëw danga ko liggéey lépp mu ne mënuma ko assuré ndax sama bakkan bi moom ma ko daal di demaat toog. Mm-hmm. nga xam ne maanaam nit da ngay ragal yàlla. dangay gëm suñu boroom. yow Ndeye Marie man dinaa dem ca banque ba décroché fa ay million jël ko te alalu askan wi la waa man su ma génnee ci banque bi oto fiir ma dee nag ah, man su ma demee lu may lay te yàlla dañoo wax ne nit ki su deewee xam nga fan la ñuy commencé calculer ay jëfam mhm. diggante bi mu dee lim distance bi mu dund ci diggante bi muy dee mhm. loolu la ñuy calculer mais li weesu te nee nañ quarante quarante cinq jours avant ngay faatu danga koy xam dem da nga koy fan da nga koy xam parce que du ñàkk bu dee ñi nga xam ni yàlla may na leen dëgg di nga xam ni yow sa dem jot na te malaaka mu ngi lay nit sax ci jëmmi boppam moom day xam parce que dana def geste buy wane ne mu ngi dem wala mu wax ko mhm. nit ñi duñ ko bàyyi xel ba mu dem ñu doog a xam ne ah, waxoon nañu ko si semaine boobu noonu wala ci weer bii nii wala nga ne ko pourtant démb fii lañ toogoon di waxtaanee dee même bu dee accident sax nit ki day xam ne mu ngi waaj a dem yàlla moo tax daal ñun war nañoo suturaal suñu bopp comme ni ñu suñu borom suturaal yi ñun war nañoo suturaal suñu bopp ne ñu guddi lu waay di dox bëccëg lu waay di lijjanti bëccëg ah. bu sottiwul bu guddee toogal sa kër ah, moom laa ci xam waaye tey ngay gis def ko tu ñaaw teefi guddi lañ mën a gën a génn dem ci rëbooru tali ah, guddi daa lëndëm daa lëndëm na guddi lim ëmb moo bëri lu lamp tàkk tàkk tàkk tàkk am na koñ yoo xam ne mënu koo leeral dañ naan dajul suuf moom bu xasee ba génn moom féppay leer féppay leer de. Ah, kon boobu politiciens yi élimaan nañ bàyyi xel ci li ñuy def. ñañ teg ci boppu mairie yi. Hmm. jamono jii nga xam ni moom ñoo nekk actualité. Hmm. bu ñu am rëy dem seeti président ne ko damaa bëgg ku ñu defaral lii. parce que tamit li ma wax élimaan wax ko la dernière fois ma ànd ceeg mooy que ni. Hmm. même boo bokkul ci camp présidentiel. y a des projets yoo xam ni il n'y a président qui peut te financer. moom rek moo la mën a financer ci budget réew bi nga mën a doxal lool parce que budget mairie mënul sax tabax marché moderne. Mhm. marché bu ñëpp di wax. Mhm. budget mairie mënu ko. soit dangay am ay partenaires yu ñëw nekk en partenariat ak yow mu doon gagnant gagnant ñu tabaxal la marché moderne bu mag di ci am nga ci am. mais am na projet yoo xam ne par exemple li ñuy wax euh, yenn canal yoo xam ne ONAS moo ko moom. Mhm. te ONAS ci nguur gi la ne. bu société privée. da nga liggéey ak ONAS. faaw nga liggéey ak ñoom. force te pour nga def ko ñoom itam faaw ñu remonter à la source. Mm. ne ko dañoo bëgg fat yenn canal yu mag yi nga xam ni sunu tuyaux yi ndox yi ci la ñuy jaar pour askan wi mën a am seen jàmm ci bu nawet jotee faaw nga dem ci président. Mm. wax ak moom mais am na sama classe goo xam ne mag ñoo ma yem. Mm. dañoo mën a siisu ne jaay dee te xam naa ne jee moom dee boo ko doon jaay kenn du jënd te bu doon dàqi du jot kenn. bu yoroon ay tànk di dàq man da du ma jot xanaa kay saabu xëyee di nga daw te moom nag moom dafa kii de saabu xëyee di la jege. wa kay eliman nay buñ am reuy dem gis président dis ko seeni projet ut ay partenaire way bokuma président vision bokuma président parti rek nga sama yon ci ci président dal xamna dal ñun sax bu ñuy toog fii di leen waxtaane parfois sax nañ ñuy terdel dañuy jël suñu temps de trop nañ ko waxte dee tamit nag amaluñu ben njëriñ lu dul di yak suñu alal ah. dañu fàtt kenn du dégg vraiment doy waar nañu jéem a changé daal ñu xool beneen système boo xam bu ñu defee seen politique parce que bi ñu def nii moom bii moom gars yi naan dañ ko bii moom doxut waaw bii bu doon doli para la ma ne amatul ah, effet bii doxut ah, amatul benn effet moom ay effet secondaire ak yooyu <laughs> ko tàkk <laughs> yéeme na <laughs> dañuy daal di rek euh, dugg si li nga xam ne mooy euh, dernière partie bi euh, bu fekkoon ni mën nañoo am sax kii di Cheikh Tidiane Dansokho ndax jamono ji moom Eh, mu nga ca diwaanu jam eh, ñaajo di dem eh, du ñàkk fite suñu jotaayu xibaar daañu ko am mm-hmm. mm, du manière ramassée mu defal ñu situation foofu noonu ca diwaanu stade maître Abdoulaye Wade ba ñu inauguré tey moom daa soxoo nee naa ko yow ma fi ne nii mm. sa dugg gi da nga koo confirmé confirmé ko sama kanam nii waaw ah, waaw confirmé na ko nii sans ngi noonu de. Ah, nii daal lañ fi rombee dem yoonam waaye àddina amul solo. mais li ma teraangay kese la. stade bi kay man li ma ci li ma ci gën a jaaxal. Hmm. daa am benn commentaire bu ma ci gis. Hmm. kii nii waa ji nee na c'est c'est stade. et hmm. maçonnique aussi. inauguré le 22 et année 2022. deux mêmes mois de plus deux mêmes jours. de la semaine. <laughs> le 22 deuxième mois 2022. léegi lu mu ca wund deuxième jour de la semaine. maanaam moom chiffre 2 baa ko ci jaaxal waaw ca bëri. waaw ay ndaxte 2 daa bëri ay euh, lu mu làmboo chiffre 2. Hmm. moom bu dee fekkee loolu da koo yéem moom lan la wax. maçonnique maanaam maanaam xam naa la formation la ko bëgg. kii xam naa fa fa muy waxee waaye hmm. nag bu bu mu jàpp ne ñoo ko moom. chiffre 2 gi suñu borom ko moom chiffre 2 suñu borom ko moom. chiffre yëpp sax hmm. ak 5. ak set. Mm-hmm. chiffre la ci biir chiffre. waaw ah. wax na par kii bu mu koy yéen <laughs> mooy Idine Samba Diallo man ah, di di raisonné. Mm-hmm. lu ma bind ñaar laa nekk mooy Idine Samba Diallo waxam ja ba léegi day sama nopp mm. am na yuñ bind te doonul juróom ñaar. Mm-hmm. waaye chiffre 2 beeg 5 euh, ah, borooma. kese waaw. bu mu ko jaaxal garaaw la jaaxal. Mm, bu la mm. jaaxal c'est le Sénégal ki kañ. wala li Isa yaxsa. Mm. wan na xaari Isa tajala wa ma la jaaxal bu la jaaxal ku baax bu mu la jaaxal. du maçonnique. du maçonnique de. Ségam Sénégal a jël coupe d'Afrique des des des coupe des Afrique. <laughs> bu kenn di Sénégal. <laughs> mën nañoo jël sa coupe des mondes. waaw des nations. <laughs> sunu borom waxul kenn dara fi ne Sénégal a ah. ñoo moomee vent ñoo moomee vent nag. ba 2075 ñoo moomee vent waaye nag ñun daaka geeg. poroxaan geeg <laughs> màggal geeg. ñun lépp ñuy wàccee gaañ rek le 28 nga jublu ah, ci Kazu Rajab nag suñu borom dinañu dégg nag. <laughs> ni ko lu <laughs> xam nga dégluñu ak dégguñu. ba bu benn Kazu Rajab le 28 la. 28 nga jël. nga jël 8 beeg 2 eh, bi mu nekk 8 muy 10. nga jël 1 beeg 0 bi mu nekk benn. benn bi du delluwaat ci allahu waahidu suñu borom rek a fi ne keneen new fi fii ba 2075 daal su Sénégal moomee baax maa wax lii kenn bokkul ku ñëw ku bokk lañ laa xajal man am na sànq si biir xibaar yi tamit waaw kañ dafa mel ni dafa nga siimati mari de ban ban ban ban ban kii moo ko bind ban xët ban xëtu yenn ya kaay ya la siimal Simul mari nga ñam de daa escoré Mm-hmm. maanaam ay autorité Kédougé Kédougou mm, mm. la jàpp autorité yi daal di leen escroquer benn par benn mm. ba am kum sàcc téléphone am doo ko ci saako ceeb gàddu ko dem ak moom Moustapha Guirassy yaay yeye yeye yeeyaa jàlloo hmm. moom daal day wër autorité yi di escroquer rek waaye hmm. far far benn député ñi daf ko usurper hmm. daal di koy teg loxo loolu du ko defati autorité ngay mom mom amul hmm, lenn lu muy escroquer du ay autorité man su escroquer won sa citoyen lambda yi du garaaw. ah citoyen lambda dañu amul koppar. du leen est-ce que ndax xam nga lutax hmm. manam dañ nan alal ju lewut lu lewul rek la ci lewul lewul rek lay dug mom xam na fa mu dugg de. day na ciblé maru waw xam na fa xam nga da ngay gis ku xey yor ay takam dem di baatare dañ nan fan la jëlee xaalis. Hmm, ah waaw. moo tax ñu dañ ne kuñ fay sa bor nga mer. la nga leblee baaxul mm. te am na. autorité yi a fay seen bor. <laughs> moom daal dugg na ci autorité yi la bàyyiwul mm. kenn daal. moom daal moom daal liñ naan xaw ma nuñ koy waxee ji sim na ma mari ngaa ñam ci autorité yi daal ku lu mm, aj ku lu aj dee ko bën. <laughs> Ah, te ku aj du bëgg kenn déen. <laughs> jàmbaar la de. nday bari jàmbaar tigi gis nga nit xam ku gën a njool ci àdduna bi ko ameel bor. Ah, waaw waaw waaw. Ndeye Marie man su ma la amalee bor yaa fi gën a njool foo nekk ci dëkk bi. Mhm. naa la séen <laughs> foo nekk ci dëkk bi ma séen. Ah. ñoom daal dañ leen a fay seen bor rek. Ah, buñ mer nag. buñ mer kay mhm, waaw buñ ab coiffeuse. buñ waaye Elie dañ koy jeexalee laata temps bi di ñu xoj ak euh, liggéeykat ya nekk ci Excaf Télécom. Mhm. ñetti mm. lañ toog arriéré de salaire am fayuñu leen seeni i seen i ñoom nag nee nañ euh, dañoo bëgg Euh, boole lii di groupe bu benn baas bi dem si yàlla benn baas. Mm. muy Excaf Télécom DTV. Mm. Dunia ak euh, yeneen parce que defe naa am nañ sax euh, site yoo xam ne mi ngi daw ci télé bi ñoom nee nañ trois mois la ñu toog jotuñu salaire. Mm. dañoo bëgg a bloqué groupe benn baas buñ leen fayut. média yi tamit. gàddu nañ àq yenn yenn yenn ci ay média ñu ko sañ a wax. kàddu mm-hmm. nañ àq bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax. gàddu nañu àq parce que métier média dafa métti Elimane xam nga ci dara ñun ñi fi toog ñëpp xam nañ ci dara parce que ci média la ñuy liggéey. Mm-hmm. àq liggéeykat moo gën a yées ci lu yàlla sàkk xam nga man Elimane mën naa ñëw sa kër sàcc la. Mm-hmm. garaawut dina la métti ñaari fan ñett fan mais àq liggéeykat bi yendu ci naaj bi suba ba ngoon jot. Mm-hmm. pendant des mois nga toog amel ko salaire. Mm. xam nga ki ñu embauché wul sax. mën nañu embauché wuñ ko weer day dee dañu am duñ teg ci loxoom. Mhm. kooku du yaakaar dara ci ci ci ci ci euh, boîte bi. Mhm. mais ki ñu embauché Elimane ki ñu embauché tamit. metti na embauchement la ñu wax. Mhm. embauchement ay këyit moo leen boole ay këyit moo leen war a tàqale. tamit nañ ci wax média yu mag yi nekk ci Sénégal gii. buñ doon audit yëppay tëj. waaw ngi noonu xam nga démb ñu ngi doon wax ci problème mu enseignant yi waaye tey tamit am nañ beneen problème boo xam ne moo judduwaat bees. suñu métier mooy ñi nga xamante ne mooy euh, métier bi nga xamante ne moo lañu nekk ci média yi. Mm-hmm. mais parfois euh, da ngay gis ay média yoo xamante ne dañuy am tur. Mm-hmm. ay nit dafa liggéey te fekk boo defoon benn investigation si ñoom Marida bu da ngay tiit ndeysaan. da ngay gis nit koo xam ne day liggéey foofu am tur. nga koy ñee. te fekk yow ndeysaan yow yaa ko tane mari daabo mm-hmm. parce que yow yaa ngi fi nga nekk sax yow yaa ngi mos dara lu mu néew néew yaa ngi mos as góor du dundee yàlla bu ko saay saay xam <clears throat> gis nga ñi nga xam ne ñoom ay patron patron de presse yi ñenn nit ñi dañ mm-hmm. bàyyi nit ñi ñuy exploité nañ bàyyi tas ko xibaar yi ak animateurs yi nga xam ne dañu leen di exploité hmm? yow nag ngay jëlee nit muy liggéey yor njabootam te mm-hmm. xëy suba di ngoon di wàcc weer dee nga noppi beneen weer dee nga noppiwaat beneen weer dee nga noppiwaat ba trois mois yoo xamante ne saawaay saf saf amul dara loo xam ne mën na ko yóbbu seen kër. am na ñuy dem au am na dem au delà de trois mois. mais loolu dafa métti. torop doy na te bëri na fi de. ak bari bëri na fi. billaay man jor Diouf de parfois damay waxtaan ak moom billaay mu ne ma man lu ma gën a ragal si kaw aduna. Hmm. mooy ak. billaahi. ak ma dama koo ñemewul. mais nag loolu peut-être dëkk ba mu ne la Amérique. mu ne ñoom américains yi moom. dañoo xam àq liggéeykat. dëkk yooyu bariwuñu ay jullit. waaye nag àq liggéeykat dañ la koy jox ba mu mat sëkk. sëkk ñooñu boo dundeek ñoom nga nekk yow jullit yow da ngay amaale sax sens parce que yow da ngay dem ba habité wu ci loolu. Mm-hmm. da ngay ragal àq. dañuy transformer sa jikko. voilà jox la seen bos. nga am ñaar nag. nga nekk jullit ba pare bilis. nga am jik jik jik jikko joo xamante ne jikko jullit la voilà mu ngi nonu ñun xam nga lan ñu manqué ba paré dañuy mbubboo ne ay jullit lañ té fekk li wara nek ci ñun li nga xamantene mom la jullit wara lambo def ji nekul ci ñun def ji manam cadre bi mom mo fi né cadre kessé ok amul ben sens amul sétu gis nga doomu adam boo liggéey lo bala ñakam di fendi loolu la di wax de ko wara jox li nga yelloo ak moom la diina wax mais nag jàpp ay nit vraiment ah di leen liggéeyloo guddeeg bëccëg ci yore ay abon embossement te mënoo def ci ñoom dara. surtout journaliste hmm. ak les techniciens de médias muy ñëw Elimane mi nekk hmm. ji ay techniciens. Hmm. caméraman yi preneur de son yi. les hommes de l'ombre daal laa leen tuddee. waaw xam nga journaliste bi taxaw di présenter journal wala nga dem teenee di def live direct kooku. ñu ngi lay seen mais les hommes de l'ombre mhm. tey élément technicien la caméraman la bu filmé lu baax ndax danañ ma gis. déedéet dara. ñooñu ñoo weer balaa ngaa fay journaliste bi toog di présenté sax moom nga war a njëkk fay. Mhm. ñooñu ñoo yor liggéey bi loolu la ñuy wax. Mhm. Hmm, doy na waar Marie daal euh, métti na la fa xew métti na trop euh, benn te loolu nag dugg leen foofu ah. Ah, c'est pas c'est pas une première. waaw du gulet ko fa deg waaw même jamono bes ben ba sax na fa. Mhm. waaw kon bu gulet. ne mhm. les grands médias les grandes maisons de presse là wax sax. Mhm. Euh, peut-être am nañ tour. tu as des partenaires tu as des publicités à finir. toute la journée ay pub yu dul ay ay une minute cent mille deux minutes deux cent mille des millions tu les encaisses par mois voilà par jour alors que ces personnes tu peux pas tu peux même pas les prendre en charge normalement. parce que kenn nit moo koy lekk nday mari man duma mom radio bi ba ma moom télé bi ba paré doonaat directeur général ba. Ah, ok ba paré nekkaat comptable ba. nekk service commercial. nekkal service commercial moo tax man la benn nit moo koy lekk. ëpp na yow da ngaa créer sa entreprise. da ngay partager les métiers. ngokk kii comptable la comptable lay doon. jox ko comptabilité ba. kii DG. ressources humaines la. kii ressources humaines yóbbu ko. fa nga a man PDG laa ma yem ci PDG la. bu coow amee mu ñëw rek journaliste laa ma yem ci journaliste. présidente dem terrain. technicien yem si technicien. caméra jër son. les cadreurs doon ay cadreurs. jeex na su ko defee jàmm duna ñooy. jàmm ni ñooy. kenn ku ca nekk la ngay liggéey doo ci gis sa bopp. man de liggéey naa ji waaye man man Eli man damay nekk PDG nekk secrétaire. nekk ressources humaines nekk comptable nekk ressources nekk lépp. xaalis bu ñëw man maa koy lekk. voilà day mari ndax man sama ay employé bu weer dee dinaa leen fay. leen fay ay mosal ay compal kay nga leen di def xam nga foofu waruma faa xuus bu baax ndax liggéeyuma fa waaye am na lu ma fa xam. parce que am na lu ñuy jaay muy diviser chaîne yi. waaw muy TNT bi. waaw nday mari dangay gis koo xam ne moom mooy nekk si beneen région di ko jaay. Mhm. ndax xaalis ba muy jaay est que mu ngi koy yóbbu. ndax du koy lekk. te loo si xamut da ngay toog télé bi di takk doo mën a seetaan. Ah. soo leen ko. signalé euh, signalé duñ ko lijjanti. te chaque ndax ñoom ñu ngi def seen liggéey. chaque mois nga fay. da ngay toog sax benn instant nga dem di seetaan si télé yi ñoom doo gis sax seen chaîne. mu leer na ñoom ñu ci ay moment yu difficile yoo xam ne dañuy dund ñoom duñ ko wax nit ñi ba pare ñu diviser wu nag. Mhm. ñu diviser wu ci ñaar. def benn bloc. xam nga ñoom yow yow imaginer Ndeye Marie ma nekk yow si lii di liggéey. Mhm. un jour nga xam ne moo ko sampoon dëddu génn àdduna dem Ndeye Marie nañ boole suñ doole ñu liggéey. Ah, mais gis nga xàccandoo dóorandoo dafa neex mais xaajaloo. xaajaloo boobu da ngeen dëkk ci di xaajaloo te da ngeen dëkk ci ay. problème yu dul jeex leen di am. xaajaloo bi rek moo indi li ñu mel. liggéey naa ci benn télé boo xam ni journaliste yi ñoo doon commercial yi. Hmm. ñooy dem ci terrain bi récupérer per diem yi. ñoo ñoom monter éléments yi. jaay ko ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñoom ñoo ko bëgg a jënd. ëlbati ko jaay ko ñu ko bëgg a jënd ay autorité fii liggéey naa fi une télé de la place fii. mujj gi da ngay dem yow yow mi ñëw bees sax da ngay da ngay premier mois ngay am naan de système bi. mel ni ñoom waxuma la naan système bi waaye da ngay adapté wu seen. waaye liñ ñu naan éthique ak déontologie bu sax boo gëm. xaw ma ne ki koy mbubboo mais boo gëm moo tax nga dégg ñu ne la dañuy wër temps employé. ñi fa nekkoon ñëpp dem nañ. ñiy génn dem seen yoon. parce que xam nañ ne ñoom la bëgg ak li fi nekk du benn. du benn bërëb boo fa ñëwee. man day mari su ma ñëwee ci bërëb bi fekk ñuy doxee benn tànk tamit ñaari tànk laay doxee man leen walagal jam. waaw dem jam dem wari fu ñu doxee ñaari tànk. Ah, taalal loxo yi ma ñaanal la bu jeex tàkk. amul problème. en tout cas daal euh, nañ leen dimbalee gis nga liggéey ba weer dee war a yóbbu ci sa njaboot am na si ñoo xam ne ay boroomi kër lañ. am na ñoo xam ne ay soutien de nañ leen jox lañu moom. man day mari benn 10 000 francs laa fi am nañ ko jox. Ah, kii 100 000 francs la fi am nañ ko ko jox nañ jox. ndax si loolu la yaakaar dund. mais 3 mois. nga tegale ko ñetti weer yàlla. yow xam nga ci gën a métti nag. benn demande d'explication du ci am. duñ leen wax quoi que tu sois benn communication. duñ leen wax wow na a teel léegi ñoom dañ leen di bati biir rek ñuy tëñëx tëñëxi di tëñëx tëñëxi si biir ñoom du xam duñ xam ne léegi nag ñoom dañuy jékki-jékki mer am. fépp su ko defee conflit revendication yi. wax ja ne kur léegi nag wax ji nee na woon kur waxtaanu biir néeg la woon léegi génn na nee nañu ko. dégg ci pénc ma daal di faa ñëpp jot ci. nañ ci bàyyi xel tey ah. fay seen i employé stagiaires yi sax war lañ leen di rémunérer ndax dañuy paas jóge kër ma saar ñëw bu am stagiaire di ko yaa ko gis maanaam stagiaire bi mooy paasal boppam lekkal boppam mooy jox boppam lekk élément sax bu koy wuti sax reportage sax day dox hmm. naam ay tànkam doxa doxa dox ba tànk tësta da des ci yoon <laughs> <laughs> sunu métier mi daal li ñuy wax rek yàlla ci yàlla def jàmm waaye bëgg bëgg moñ ci bàyyi Pape Djibril Fall di wax ñaari me ñi yi ku ci wut xaay yeboo nga dem toog te dem uti leneen métier journaliste mii ci la bokk ku ci ay million tàyyi ko ndax <laughs> li ñuy wax rek bu ñu saa borom dimbaliwul dëgg amaana doo jënd kër gu baax ndax suñu éthique ak suñu déontologie moo ñu mayul ñuy maguy mm-hmm. démb maa ngi wax ak benn confrère di wax ak bu di ko tooñ yàgg ma ne ko waaye xanaa du mu ne ma man nekkatuma journaliste ma ne ko subhanallah loolu de tey laa ko mos a dégg mu ngi noonu en tout cas luñ ci mën di def rek yal na yàlla gaaw soppi situation foofu ci mm-hmm. kër googu lee ji euh, group Excaf euh, Télécom euh, ñoom itam quoi qu'on puisse dire am na loo xam ni ñu ngi koy def si média ndax li ñuy wax premier chaine numérique ci Sénégal ñoom waa groupe Excaf Télécom à travers Dunia. Mm. Euh, ñoom ñoo ko def ba tey ñu taxawal li nga xam ne mooy DTV. donc euh, dañ leen di ñaanal rek suñ borom gaaw soppi situation saafara mbir yi euh, ba moomu bañ a dégénérer mu ngi noonu moo nekkoon seen deuxième numéro de la semaine El Ibrahim borom stade Diamniadio. waaw mm. <laughs> wax naa leen ko de nee naa leen ku fa laal benn sëfa moom ah. man ngay am ak affaire loolu moom wax naa maa ngi sa ginnaaw voilà jaajëf aca di kontaan ci ñëpp waaw ñi nga xamante ñu ngi ci doon suivre rek ci émission bii di suñu kër matin euh, di gërëm ñëpp rek di wax rek euh, lépp luñ fi wax euh, lu jub ci yàlla lu fi dëng xam ne rek ñoo matul di jégalu ñëpp kontaan ci ñëpp ah, ci topp bi di wax rek wér di teglu suñu programme ci 3 suñu kër point com ak ci application bi waaye tam ci euh, replay bi foofu noonu ci euh, suñu seen YouTube jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah. waaw kañ hmm. jaajëf jëm ñaa jox soxna Roqee. waaw ca stade bala <laughs> ca bi. nga xamante ne nii daal moo njëkk ci hmm. Afrique de l'Ouest boo xam ne c'est multifonction. waroon naa mën a sax xilaaf nag ba dem tiim ko. <laughs> man nee naa la man jarul sax muy dugg man naa yem ci biti rek amul problème. Eh, sax laaf amul benn problème. <laughs> di kontaan ci auditeurs yi rek ñoom ñi nga xamante ne nii rek fu ñu nekk ci àdduna bi ñu ngi ñuy teewlu ci suñu kër matin si www.sunukerfm.com di leen wax rek ne jaajëf waaw kumba ñoom waaw góor ñi nga xamante ñooy auditeurs yi <laughs> ne xam ne ki nga xam ne mooy wax ki koy déglu mooy xaritam di leen jaajëfal saa su nekk rek di am contentement waaye itam di wax rek ne uh, suñu mbokk yooyu nekk ca Excaf Télécom yàlla na yàlla soppar mi situation bi ba ñu mun a uh, delluwaat ci seen liggéey na mu waree di leen jaajëfal rek di leen wax uh, ba ëllëg incha allah ci troisième numéro de la semaine maa ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax ah, ci li nga xam ne rek mooy teelu bi waaye tey waa Cap Skirring maa leen di nuyul sam bopp ah, Cheikh Tidiane Dansokho mi ngi leen di ziar depuis Dakar leen di ziare waaye itam ñun waa cœur de ville bu Kaolack fii ci sunu Kër FM ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waa Cap Skirring Ziguinchor Casamance bàyyiwuñ fenn ah, région yëpp euh, les quatorze régions du Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaye itam Matar Diouf euh, Fatick sur correspondant boobu ñu ngi koy ziar moom itam di ko jox uh, wàcc waayam di ko jaajëfal baax a baax ci uh, résumé de la semaine yi nga xam ni uh, mi ngi ñu ko fi amal àllarba bu jot suba incha allah da ngeen ko mën a am ci li nga xam ne rek moom itam mooy débrief de la semaine jëm ci wàllu information foofule ci diwaanu Fatick ak li waaye di kontaan bu baax tam euh, bokk ak ñoom plateau bi soxna Roqe El Ibrahim di leen jox rendez-vous euh, suba incha allah ci seen troisième numéro euh, de la semaine ci suñu kër matin jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm. dégloo dégloo déglooti sunu kër FM.